koy jariñoo sa nekkul xam-xam bu yàlla bañ da lay fekk sa bar sàq ñetteel bi mooy lii ñuy def aw waladin saalix mooy wàcc ay doom yu baax ñu lay ñaanal kon li ñaan borom subhanahu wa taala ka ñaari kaam yàlla fekk ñu ko doon jàng seen bar sàq mu nekkee yoo xam ne bàkk ba kera yaayumul na ko yàlla na ko def si barke amiin yaa rabbi amiin ñu gën a góorgóor a xam ni li tax yàlla bindu doomu aadama jaamu rek moo tax yàlla bindu ko amiin yàlla bindu doomu aadama pour leen dul jaamu ko mhm. bindu doon ngay tabax ay kër bindu la ngay dawale oto loolu baax na de waaye li tax yàlla bindu doomu aadama muy mu jaamu ko wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li yabudun yàlla na bindu ma nit ak jinne lu dul jaamu ma kon nit ki na xam li tax yàlla bindu ko li tax na xam li tax yàlla wàcc ko ci kaw suuf soo xamee loolu rek ëllëg day am ngërëmu borom subhanahu wa taala sa nit ki li war a sàkk ëllëg muy am ngërëmu borom subhanahu wa taala ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaale kenn yàlla dafa seen quran yi fa man kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadi rabbi ahada yàlla ne képp ku yaakaar da jeg man ëllëg na jëf-jëf yu baax sa jëfam jëf yu baax sa bu nu bokkaale kenn kon nit ki buy jaamu yàlla di bokkaale yàlla na xam ni jëf yu mën a yàq bokkaale yàlla li ngi mel ni nit ki dafa am soow ma ba soow ma jekk mu jël suuf sotti sa na soo mën a yàqoo noonu la la bu fekkee mi ngi bokkal yàlla la mu jaamu yàlla noonu la yàqoo yal na si yaa rabbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp te la ko yàlla wax la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin mu ne yonent bi bis moom bokkaale rek sa jëf yàqu na. Mhm. ndegam yonent bi la yàlla wax loolu kon ñun suuf ko wax kon nit ki ne góorgóorlu jaamu borom subhanahu wa taala bañ ko bokkaale kenn ak dara. nit ku fekkee mi ngi bokkal yàlla ëllëg yow man xiyaan loolu mu doon jaamu du fayeeku yàlla na si yàlla musal kon ñu ñaan borom subhanahu wa taala ëllëg yàlla ma ngërëm borom subhanahu wa taala xan mu bii dañ koy jox soo rak Mouhamed Diop ndax yonent nee na xayrukum man taallama alqurana wa allama mu ni ki gën si nit ñi mooy ki jàng alquran ba ba pare di ko jàngale sa yàlla dogal na ñu ngi jàng alquran kon moom lañ jaral xam bi incha allah bismillah Mouhamed amin bismillah rahmaan rahim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر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 اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما طلبت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات القرآن إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعديل عند تلاوته أو قسم يا أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إجهال بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمدى تلزم من كل الالحاد وارزقنا فضل من قراه مؤديا حقه مع الاعلاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعاده والبشاره والامان ولا تحمل لنا بالشر والضلاله والطغيان ونبينا قبل المنايا من لوم الغفله والكسلان وامنا من عذاب القبر ومن السؤال منكر ونكير ومن أكل الجيلان آمين وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران آمين ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات آمين وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان آمين وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين وأكرمنا بلقائك يا ديان آمين واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وخاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الجنة وصاحبنا في الجنة ومصباحنا في الظلمة وقليلنا في الخير وموقدنا في الفتنة وانصرنا به من الزيغ والأهواء آمين الأعداء يا رحمن يا رحيم آمين اللهم اختم بالسعادة آجالنا آمين يا رب آمين وقت جنة kon lépp nañ ko àndandoo rek defar mu rafet defar mu baax Baye Matar nag nee na ñu ngi sant ndax ñaari kàddu yi ma dajale yépp muy bu sëñ galas di Baye Matar ku ne xam nañ ne ñaari cër lañ fi am ndax bopp bi ñu bopp kër Maïssa waaye ci seen wàllu waajur ñu dëkk fii donc li ma leen di waxal ku nekk ku ma jàkkaarloo fii rek góor bi mënoon na ko wax papa bi mënoon na ko wax ndax ku ne Njoga Njaay wax sàkkar yàlla kon mënoon na ko wax ku ne xarit bi wax sàkkar yàlla mënoon na wax ku ne Euh, bàyyi Matar boo nee Mor Fale dina ne Assou kon góor mi mënoon na ko wax kon su ma ñëwul it ku ñëw mën naa wax li ma war a wax ndax ñëpp a ngi dégg te dara umtul kon man dama bëgg mbokk billaahi man dama bëgg mbokk fonk nit ndax nit amul lu loolu yi des yëpp c'est apparent mm-hmm. yooyu yëpp ay détails la ku ne mën na ko am que gëmul yàlla bëggul der bu ñuul bëggul leneen sax yàlla koy teral loolu yëpp suñu borom la mais li nga mënti séddoo loolu da nga jàpp bu baax te mooy li ñu bokk ñun ñëpp ñu koy rafetal di ci def lu baax mooy moytu lu jóge extérieur ñëw di ñu ñaawal nu ñuy ànd. te yàlla tax te àdduna moo ko tax kon sëñ Galas nee na parce ma nag cette fois si vraiment gars yi war nañoo xool xaw wala man ma xool sama bopp ba xool muy ñëwee ci bis bi parce que lu ñu lay wax ak mu ne te sës bi mu sës ci julli gi day tax ba déplacement bi dafay dafay jafe mais xam naa ni lu ne mën nañ ko waxtaane nag même bu ñu koy def deux jours après wala xool daal benn système. ba mbokk yi di fi gën a mën a nekk loolu lu am solo la lu ñuy def ci ay mbokk it dañ koy yaatal mbokk yi ñu réfléchir xalaat ensemble lu ñuy def ba bis bi daal di lu dëgër dëgër na sax waaye lu gën a yokk rek ndax ku yokk moom da ngay yokk rek te lu baax moom dañ ko war di yokk rek kon ñoom ñaar ñu may jox seen i kaddu yi nuyoo yëpp. kàddu yu mbégte tey ñaan yàlla di leen jëkk ci jàmm yàlla di fi def jàmm kon maa leen di gërëm di leen sant ndax julli jot na joxe ndax lii moom suñu yëfa lu mu baax baax it jàkka ji da koo kon maa ngi ñaan ñëpp yàlla dajale ñu déwén te kenn du manqué ñu ànd ko ak wér ak sant te yokk bu déwénee bu ñu fi tey. Abdoulaye Diaw xam naa da nga maa bëgg a dugal rek waaye dama ko nangu. damay njëkkee sant yàlla beneen bi ci des mooy comme ak bokk la présentation bi de ñàkk à chaque fois maa ngi tudd Pape Mor Sylla dëkk Thiénaba Seck di doom ci soxna Ndeye Tour ñu koy woowee Ndeye Tour nekk doom ci soxna May Diop soxna May Diop nekk doom ci dëgër Diop ñu fàttali rek ni noonu laa bokk ci Kër Maysa kàddu yi yi gërëm la xam naa ne xaw naa métti tuuti waaye comme kilifa gi ñëpp fi faaw ñu wutal fi ay suñu gan yu tedd di leen wax àllal wa saxlan fii ci Kër Maysa donte dëkk bi sax ku nekk mën nga fee dalal sa ngi leen di dalal ci bés bii nga xamante ni bésu ñaan ndax yaakaar naa bés yu bari bari na ci Sénégal waaye bés bi bés la bu ko ci doole ndax bés la boo xamante ni non dañ ci ñaanal way ndaw ñi waaye bés la boo xamante ni ay mbokk yu mag yi daje te comme ni ko suñu borom waxee mbokk moom ku ko jokk mu yokk la ku ko dagg mu dagg la kon képp koo xamante ni nga fi ngir jokk mbokk yàlla na la yàlla yokk waaye lépp loo xamante ni ñaan nañ ko ci suba léegi yàlla na ko yàlla nangu nangul ko ñi nga xamante ni mooy way daw nañu waaye xale yi nga xamante ni ñoo koy ko seen yàlla na ba ñu yàgg na ko yàlla na ko yàlla def. sëñ Ablaye kàddu yi métti na loolu waaye kàddu yi sant la rek di sant le comité d' organisation bi ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp ndax yëpp yi ñoo ko bokk. su ma ñëwee fii ci kër Maysa ñu ngi may wooyee vice président yaakaar naa loolu du dara lu dul wane ni yëf yi yëpp yëpp la te lu nekk ku ne nga def kon ci ñaanal xamante ni dugal nga sa doole moo xam sa alal moo xam sa xalaat moo xam lu mu mën a doon yàlla na ko yàlla ful yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wax ni mbokk yi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla dëgëral xale yi yàlla na leen yàlla sàmm. ñu ci war a wut soxna yàlla na ko yàlla may ñu a wut borom kër ko yàlla may ñi nga xamante ni def nañ ci ngir dërëm mu yokk yàlla leen yàlla jox dërëm lu ëpp luñ ci dolli yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def di ñaanal aussi suñu mag nga xamante ni kenn deful ñu des ñoom jiital nit ñu ba pare di ñu pakastal wala ñu bàyyi ñu liggéey lépp loo xam ne lu ñuy dox la wala lu ñuy wax ñoom ñoo ca jiitu waaye aussi di gërëm jigéen ñi nga xam ni que yëpp tàmbalee ba tey kenn demul ñu des waaye aussi di gërëm tamit suñu coordonnateur bi muy Ablaye Diaw nga xam ni daanaka la ci liggéey bi ci lu ñuy dox wala lu ñuy wax moo koy doxal ci biir ak ci biti yow ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant maa ngi jégalu ci kàddu yi xam na lool waaye yàlla na ko noppi mottali yàlla na ko ak dégg mottali asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ah, waa group bi euh, gërëm naa leen sant naa leen euh, mbir mi nag lu ko tax a jóg moo doon euh, ñaanal waajur yi commencé ko ci borom dëkk nga xam mooy may seen jàkke bi ci kiñ mujj a rob macha allah alquran bi sell na seetaan naa lépp xale yu sell voilà alquran bi sell alhamdulilah. le conférencier aussi euh, thème bi nañ ko waxoon def na ko bu baax a baax a baax donc dërëm euh, bi génnul gaal bi dégg naa Modou Fall di wax euh, baayam doomi master ñaan day war naa mën a aw Quran war naa mën a toog ci nit ñi di wax ndax papaam am na lu ma ci daan fàttaliku boobu tout tànk laa lool da daan jóge ci dëkk ba ñëw sanc boobu ngent lu ñuy wax sanc sama dëkk bi yóbbu ñu jëloon ci kër médecin danda sanc ba mooy toll ab duggéey boobee suñu tool ñëw di yee nit ñi ba foofu di jóg leen julli waaw loolu daan naa dégg waaw mu daan ko def waaw am na lu ma ci fàtte boobu gone laa du ma ko fàtte waaw ah waaw kon jógee si dëkk ba matul kilo un kilomètre waaye war na ko mat à peu mu ñëw donc loolu yëpp ci diine moo ko solo loon waaw da sama xarit lool nag ndeysaan euh, bi ci jógee ci loolu macha allah euh, sant jigéen ñi ndax loo gis fa mu commencé woon jigéen ñi ñoo daan def bu ñu kii ba suba rek ñu daal di ñoom yàlla xiir leen ci ñu woote woo aadama mu di leen waxtaanal lu am solo ci diine donc looku euh, xalaat seen maam Meesin Njaak ndax diine su ma ñëwee ci histoire Meesin Njaak bi en mille huit cent euh, soixante dix bi muy jógee di dem yaayaan foofu la sama wéyjuru suñ Mor Faati Géey mille huit cent soixante dix huit Euh, xam nga moom mi ngi sañ ci mille huit cent euh, quatre-vingt-cinq quatre-vingt-six quatre vingt cinq bu ñu nee quatre-vingt-quatre quatre-vingt-cinq euh, quatre bi nga jël quatre-vingt-quatre quatre-vingt-cinq quatre-vingt-six da jël cinq bi waaye <coughs> donc mille huit cent quatre-vingt-cinq bi muy sañc si fii ma nga nekkoon ak ay doomi baayam la bàyyi woon ku ñuy wax wuy juróom ca euh, dundu kajoor ku ne xam na dégg ngeen naa euh, Kër Makumba Gueye Buya Gueye euh, Badar Gueye dëkk dëkk cosaan yooyu ku ñuy wax Makumba Gueye nag ah mooy woy juróom ma nga fa woon nag ay doomi baayam waaye maam Makumba gis ni mu ràññeeku lool mu gis ni moom mi parce que ñooñu duñ daan ko conquête la bu ñoom ñoom li leen ñoroon mooy tas diine ji waaw ku ci nekk rek ñoom ñu baax nañ tas diine ji rek ñuy jóge fi aw fi xam nga la plupart ci ñoom ay saraxule lañu ak tukulóor li may répété ma ne ak tukulóor ñoo indi euh, islam fii ci Sénégal waaw donc ñun maam yooyu maam Adama gi ba ci. Euh, ma amee sa njàkk ba euh, li ma naa mouridisme moo ubbi ñoo maam Adama Gueye moo jëkk jëblu sëñ Touba sëñ Moussa Alima Gueye sama rakk papa fii ma nekkoon ci kër gi ci Touba def naa fi vingt ans ndox moo fa jële euh, sëñ ma Alima ñoom fu ñu nekk day barkeel macha allah waaw donc mouridisme ubbi moo tëj Euh, donc pour de lii yëpp may wax rek pour xam nga man dama bëgg histoire ak affaire yooyu quoi pour ñu xamul xam rek kam ni ki ngeen doon célébrer ak ki tax ngeen def affaire yoyu ci euh, jamonoom kenn ëpp ko ci woon amul kenn ku ko ci jamonoom waaw ndax euh, bu dee alxuraan rek waaw duñ dem nañ ba ni sax ku sant Euh, Mbàkke bu sëñ Touba bu feeñu woon ku sant Guèye mooy waaw ku ne xam nga histoire maam Adama Guèye waaw waaw euh, yooyu yëpp c'est de euh, histoire boo xam ne rek rappel la quoi pour di ko leen ko waxtaan xam ne yéen ki nga doon célébrer quoi comme que doon histoire xaju fi benn bi leen a def spécial benn histoire sur bu fekkee soxla nañ ndax ne xale yi tey ñoom dina naa li ñu bëgg a dégg mooy ab xaalis rek. moo tax muy limité wu toujours waaw muy limité wu toujours ndax fi mu ne jamono demee noonu donc euh, mën naa yem foofu rek euh, dellu siwaat nag ci conférence di dellu siwaat ci euh, fi ma bàyyi woon mooy jigéen ñi ñoo ko sosoon xam nga grossiste oustaz conférence bi kenn moo koy taxaw muy yow taxawaay bi ma amoon si oustaz Adama Gueye bi muy dund bu ñëwee ma toog si wetam la muy wax ma sey jàng di si jaruñu oustaz taxawaay boobu laa am si ban si waxtaan ak léegi yaakaar naa ne ëpp na weer di wéy taxawaay bi ma amoon si Adama Gueye nekk si wetam la muy wax ma koy jàng di ko jaruñu jàppal ne oustaz taxawaay boobu la am si ndax bu dee jukko yu rafet mi ngi si yow sa nit ki bu yore jukko yu rafet kooku war naa mën nekk sa oustaz war naa nekk sa mag daara seen oustaz nungul na la loolu mu am thème bu bëgg a waxtaane muy axlaaqul muslim mooy jikko yi nga xam ni julit bi war na ko yor jikko yi nga xam ni islaam bëgg na ab julit yor ko sa jikko su baaxee kër gi baax jikko bu baaxee penc mi baax jikko su baaxee réew mi baax jikko su baaxee àdduna bi baax oustaz duñ sori lii kàddu yéen amoon yu ni yëkkati joxale incha allah yàlla jàppale la ba lépp loo waajal bëgg ko génn yàlla jàppale ba nga génn ko yàlla musal la si tarxiisu làmmañ ba li nga waajal bëgg ko génn ñun ñëpp ñu jariñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi ustaas alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa naudu billahi taala min shururi anfusina wa min sayyiati amalina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 jaamu yàlla gi xam ni moo leen génne di shahru ramadan al mubarak lépp li ñu ko ci jaamu yàlla ñu ko nangul yàlla may ñu kàttanal ñu ñu fekke ko ay at yu bare bare bare bari kenn bañ koo wuute kenn bañu manki mbokk yi comme ni ko suñu oustaz Abdul Qadir defe ci introduction bi ñaan na fàttaliku na mbokk yi duñ ci jaaraat waaye bëgg nañ wax rek incha allah waxtaan bi niñ ko bëgg tërale te mooy ñu wax fii ñu toog moom mooy fan ëtt bii mooy fan beneen bi mooy ku ne xam na ni démb ak tey ak suba la muy ñetti temps la passé le présent et le futur loolu it bëgg nañ cee taxaw beneen bi ci toog mooy thème bi nga xam ni moom lañ tànn ren di importance su jikko loolu it incha allah dinañ ci ñëw Euh, beneen bi ci topp mooy li ñuy wax lépp incha allah bëgg nañ koo joxee ci kaamil bi ci alquranul karim nga xam ni yaakaar naa wax féetewu ko kaw suñ waxee ñu ni lii aaya sàngam moo ko wax loolu kenn du ci sikki sàkk rawatina nag thème bi di wax jikkoy jullit jullit buñ koy wax ci aaya alquran yi yaakaar naa war na ko bàyyi xel bu baax incha allah fi ñuy jeexale mooy euh, bu ñëwee ba ci nihaaye bi mbokk yi nga xamante ni moom lañ bokkal waxtaan bi ñu joxe seeni i contribution mbokk yi aay yi nga xamante ni ubbee nañ ko aay yu màgg la yu kawe la borom bi subhaanahu wa taala di ñu wax ni ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal fi ne weeru koor li muy metti metti metti ñu jeexal ko objectif final bi mooy taqwallah yàlla na yàlla defal ñu ko ndax taqwallah mooy lan li la yàlla sant nga di ci góor góorlu sa kemt lay kàttan lim la tere nga bàyyi ko aay bi njëkk a jàng loolu lay wax kon taqwallah liñ doon sonn ci kóor gi yépp naafile yéeg sarax yeeg góorgóorlu yéeg yépp pour renforcer suñu taqwallah la woon te yàlla nee na ñi may nangul seeni jaamu moo ñi ragal yàlla yàlla nañu yàlla boole ci groupe boobu ñaareelu aay bi di wax ni ndekete ñun de ñun ñëpp ñoo bokk maam ndax yaa ayuhan naasu la woote naas mooy les gens ñëpp a ci biir buñ taxawee foofu dañuy xam ni ndekete àdduna bi li ñuy faral di wax naan juróomi continent moo ko composé dañ ciy d'accord ñuy wax ni ñeenti téeméeri pays yu manqué tuuti la àdduna bi composé ñu ni waaw ba tey ñu ni dañ koy wàccee ñëw ba nga xamante ni ñun ñu ngi dëkk Afrique nous sommes des Africains ñu ni ba tey dañ ciy d'accord Afrique googu nga jël ko xaajaar ko mu nekk juróom fukki pays ak lu teg kon Afrique yaatu na rawatina suñu mbokki chauffeur yi commencé dem di ñëw ñu leen di tooñ ndekete avion yi nin daa naawee di dem ci kaw noonu la oto yi léegi di demee bu baax a baax a baax ci dëkk Afrique Afrique lu yaatu la boo jëlee Afrique googu nga génn ci dëkk bu ñuy wax senegal tey jii ñu ngi ci réew bu ñuy wax Sénégal yàlla yàlla dool yi ci suñu réew jàmm ndax ku ne xam na ni bu yàggul passé nañ ay élection ay étapes yu xaw a réew moom étapes yooyu nag yàlla defal nañu ci sutura war nañ ko cee doole sant bu baax a baax a baax a baax yàlla na yàlla doole ñëw dimbali ñu di ko sant kon nañ xam ni ñoo bokk maam yaa ayuha naasu taqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida ñun ñëpp ñoo bokk suñu maam Hawa ak suñu maam Adama kon Afrique la dëkk ak Asie la dëkk ak Europe la dëkk yéen a bokk maam fi ñuy jeexale mooy ñu xam ni nag communication alquran ba mu ñu koy jàngal du woon tey yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ndekete communication depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko alquran traité woon te mooy lan sooy wax waxal lu baax su jeexee nga tey sa làmmañ kër gu yëngu tey communication bu baaxul moo ko yëngal penc mu yëngu tey communication bu baaxul moo ko yëngal réew mu tàkkiit bu yàggul ñu dund nañ ko kon su ko defee communication lu jara bàyyi xel la te alxuraan waxoon na ni la ah sooy wax na nga wax wax ju jub loolu mooy tax nga am ngërmaande borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy li nga xam ne aay yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi bu toogaan ci jataay ñetti aay yooyu lay barkeeloo moom lay jàng tey it ustaas bii di Abdul Qadir moom mooy yor daare ji fii di jàngal xale yi alxuraan ñuy posé ñeenti question en tant que jullit boo xam ni yaa ngiy dégg wala nga war a dégg kàddu gi après te mooy lan bi ci jëkk mooy hal naqara alquran mooy est ce que ñun ñi ngi jàng alquran juddu ba am fanweeri at ñeen fukki at juróom fukki at di gën a jige sa bàmmeel est ce que yaa ngi jàng alquran en tout cas mag ñi def fonkoon nañ ko mag ñi bëggoon nañ ko daa ci nekk guddi ak bëccëg yàlla yàlla jéggal leen yàlla yàlla yërëm leen question la boo xam ni ku nekk yaa koy tontu sa bopp loolu mooy bu njëkk ñaareel bi mooy hal nahfaz alquran mooy est-ce que ñu ngi mokkal alxuraan am na koo xam ne la mokkaloon depuis dix ans ci ginnaaw ba léegi boo ko tëyalaatee ab saar teguwu ci te nag nous sommes des ay jullit lañ diplôme yi li muy bari bari garaar yi li muy bari ak foo mën a téere ji jullit ga te loolu mooy thème bi te dina leer ci kanam mooy kon est-ce que ñu ngi mokkal alquran ajjana ay kër la yàlla nañ fa yàlla dugal bu ñëwee yowmal xiyaam lan lañu suñu boroom di wax jàng leen alxuraan ngeen di yéeg ku ci nekk aay bi nga mujj jàng mooy nekk sa kër kon war nañoo doole ñaanal suñu sëriñi daara yi oustaz bu leen mës a découragé alxuraan mooy njëkk mooy mujj yàlla yàlla sàmm leen yàlla na yàlla dëgëral leen beneen bi ci topp muy ñetteel bi mooy est-ce que ñi ngi jéem a comprendre nag alxuraan hal nafhamul xuraan est-ce que ñi ngi jéem a dégg alxuraan ndax di tari nii rek mokkal naa kaamil bi wala jàng naa juróomi saar wala génn wàllu xisib te ñaari aaya ñetti aaya xamoo maanaa bi ah loolu yi day xaw doy waar kon su ko defee ñu ngi profité di dalewaal dalale suñu kilifa chef du village de Thiénaba Baye Alassane Niane sàmm ko sàmm njaboot gi eh, beneen bi ci mujj mooy hal nu tabbiqul quran est-ce que ñu ngi pratiquer nag alxuraan est-ce que ñu ngi koy ñu ngi koy jëfe dëgg-dëgg loolu mooy thème bi su ko defee suñ déparee xool kaamil bi saar bi nekk ci kaw gën cee màgg mooy suratul fatiha bi ci topp mooy baqara al imran ngay wàcc di wàcc ba dem di septième surat ñu koy wax suratul isra saar wi ci topp mooy suratul kahfi foofu mooy diggu kaamil bi suñ demee suratul isra borom bi subhaanahu wa taala nag di ñu fa jàngal lu am solo mais balaa ñuy dugg ci comportement yi ñu wax doomu aadama ban objectif la yàlla amoon ba wàcce ko ci kaw suuf bi ci jiitu borom bi subhaanahu wa taala ma ngi doon wax naan wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fil ardi xalifa yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalikul ba yàlla di wax naan dama bëgg a wàcce benn représentant ci kaw suuf ndeysaan yàlla loolu la wax malaaka yi xam nga leen leen tontu yàlla ñu ni ko yow borom bi subhaanahu wa taala ndax da ngay wàcce ci kaw suuf koo xam ne bu fa demee day yàq rek day yàq rek nekk fa di tuur deret di rayante di def yu bon malaaka yi loolu lañ posé question yàlla yàlla ni man xam naa loo leen xamul kon doomu aadama boobu yow la yàlla nag di waxal ci situation yu mel nii suñ delloo ci aaya yooyu ci suratul isra borom bi subhaanahu wa taala lim ubbe ci waxtaan yi nga xam ni jullit bu koy dégg foofu nga war a déparé si lépp baax waaye bu yàqoo yow musiba dan la la yàlla yàlla musal ñi ci te mooy lan mooy bokkaale laa tajal ma allahi ilahan axara fa taquda mazmumam mahzula borom bi subhaanahu mi ngi ñuy bokkaale ngalla waay jullit comme thème bi ci jikkoy jullit lay wax ak foo mën a nekk ak loo mën a am ak koo mën a doon ngalawaay na nga daw bokkaale bokkaale mooy bakkaar boo xam ni soo ko indee yowmal xiyaam yàlla nee na lii moom mënuma la koo jéggal inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha bàkkaar kirim boo mën a def ci kaw suuf boo ko tuubee yàlla dina la ko jéggal waaye boo ko tuubal ba dee yàlla ko ñëw yowmal xiyaam moom moom maari day taali safara jahannama mooy nekk sa wàccuwaay yàlla na yàlla musal ñi ci kon jullit day moytu bokkaale ñu xam ni yàlla moo la bint yàlla moo la moom yàlla moo lay wërsëgal yàlla moo lay rey yàlla moo lay dekkal te xéewal gu nekk ci yow yàlla moo la ko jox ndax li yàlla moom sa diggante ak moom la sa diggante ak jaami nag li nga seq ak ñoom nga def ko waaye li yàlla moom boo ci jëlee dara lu toll ni tarafatal ay ni jox nit loolu mooy bokkaale walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yaamaloon yàlla nee na xattaa yonent yi sax li ñuy màgg màgg li ñuy for bu buñ bokkaale woon seen jëf yëpp lay màbb kon ku dul yonent safuta wax yàlla nañ yàlla musal ci bokkaale loolu mooy première introduction bi nga xamante ne alxuraan aay bi mi ngi koy tere jullit mu koy comporté woo comportement kon bul bokkaale yàlla nanga nga wéetal yàlla beneen bi wa qada rabbuka alla taabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana mooy les parents mbokk yi suñu mag suñu sëriñ Oustaz Adama Gueye yàlla na yàlla yeesal ci moom jéggal ak yërmande daan na insister lool ci tomb bi muy waajur yi waajur mooy koo xam ne ginnaaw àqu yàlla su jàllee àqu waajur moo ci topp ndax dafa doon loo xam ni yàlla dala koy won fii avant àllaaxira ndax borom bi subhanahu wa dani ah lii nga xam ni mooy aqu waajur amoo droit jalgadi si dara dara dara ndax xataa boo jàngul yow barki dem bi ngay judd nekk ab liir yaakan la woon lu ne yaay daj ko lu ne bàyyi daj ko ñuy dang dangi di dang dangi ba nga nekk ponk lu magum jëmm uli yeek nga delloo leen njukkal yërëm leen tette leen jaar ñoom lala la islaam sant nga jaar weneen yoon yonent bi saa salaam nee na uququl waalidayni loolu yàlla du ko xaare sax alaxira fii la lay dumaa ci àdduna avant alaxira na nag suñu demee ba âge ba mage ndax des fois yàlla nattu doomu aadama muy dund ak ay waajuram ñu dem ba am quatre-vingts ans quatre-vingt-dix ans bay jige téeméeri nga xam ni dañuy mel ni xale foofu la mbir mu nekk su boobaa lan moo la war ci yow nga yërëm leen wàcce sa bopp wàcce say garaat xam ni mënoo am garaat bu féete kaw say waajur mënul nekk président de la république bu yàggul lañ ko nommé takkal ko lañ koy takkal waaye lu mu am garaat garaat garaat boo ñëwee say kanamu waajur da nga naan groupe sukk parce que ñoom yàlla moo leen takkal garaat loolu il faut ñu xam ko rawatina ndaw ñi foofu la ñuy rawante foofu la ñuy delloo ginnaaw képp ku fonk say waajur yàlla dina la fonk dina la dimbali waaye képp ku ginnaawal say waajur da des sa ginnaaw rek am du may àdduna du may alaaxira yàlla nañ ci yàlla musal kon waajur yi nañ leen teg seen place beneen bi ci des mu ni ràbbukum aalamu bi maa fi nufusikum man ngaa nax doomu aadama yi de waaye yàlla mënoo koo nax ndax yàlla moo la bind mooy taqwallaa bi ñu doon wax sàng ci kaw doomu aadama soo wéetee ngallaawaay na nga xam ni yàlla nga loon démb avant tey képp ku am loolu ragal yàlla mi ci yow ndax balil insaanu ala nafsihi basira doomu aadama lu la nit xam-xam-xam yow yaa gën a xam sa bopp kon lu la nit ñi mën a tàgg tàgg di wax diw diw diw diw boo duggee sa néeg war ngaa xool nag sa diggante ak sa borom wala xalaat sa bàmmeel bis boo fa wéetee li la nit ñi doon wax ak réalité bi nan nga koy dunde kon àndal ak sa boroom nga ragal ko rabbukum aalamu bi ma fi nufuusikum yàlla mu ni maa gën a xam di nekk seen bakkani kon ngalawaay bul tricher booy saraxe saraxel te yàlla tax booy digle lu baax na ko def te yàlla tax sooy jaamu yàlla it na ko def te yàlla tax loolu la aaya boobu di junj foofu beneen bi ci topp it mi ngi wax wa aati zal qurba xaqahu wal miskina wabna sabil wala tubazir tabzira ci mbirum gaspillage ndegete Sénégal sunu xoolee dëkk bii ñu doon wax ah ci benn côté yàq am na de waaye nag ñen ñooy faral di yàq mooy soxna yi ngalawaay xew yi riñ mu bii mu jël war nañoo taxawaat ñu xool est-ce que nii la war a demee est-ce que mag ñi niñ doon dunde démb daani xewe ak lii xew tey est-ce que noonu la waroon demee boo gisee crise économique bi nim ñu sonalee xale yi war a takk soxna seen fit yi di tëf tëfi xale yi war a am ngénte war koo aj seen fit yi di tëf tëfi mooy lañ fa aj du woon foofa il faut ñu xalaat affaire yi ndax yàlla bëggul yàq defal farata su jeexee jeex na waaye loo xam ni yàlla sant la ko yonent bi sant la ko nga teg sa bopp coono boo xam ni boo tëddee doo nelaw loolu ab jullit war na koo moytu ndax innal mubazzirina kaanu ixwaana shayatin yàlla nee na yàqkat yi ci waa parti seytaane sax lañ bokk yàlla nañ ci yàlla musal kon nañ xam ni yàlla bëggul ak gàttañlu waaye bëggul yàq lii 1000 francs moo ci yell mais joxe 1000 francs pourquoi ngay joxe 5000 ah di wane ni man am naa te yàlla nee na alal ji jox yow moomoo ko dama la koo dénk rek pour benn instant dama koy jëlaat léegi jox ko keneen pourquoi ngay gaspiller ah innal mubazzirina kaanu ixwaana shayatin kon bul yàq yàlla bëggul yàqkat yi parce que yàqkat yi ñoo parti seytaane leen bokk te parti seytaane ñoom mënuñoo am jàmm ci kaw suuf bokk na ci li muy jàngale ba tey bokk na ci li muy jàngale ba tey it euh, ñu xam ni suñu diine ji diiney jaamu yàlla la diiney góorgóorlu la ndax doomu aadama yàlla dala fee wàcce pour nga jaamu ko dëgg la liggéey pour dund danga koy def waaye objectif principal bi mooy jaamu yàlla soo ñëwee mal yàlla fay la tàbbal la àjjana loolu mooy mission bi nekkoo fi nii di lekk ka naan di dem ak ñëw nii rek déedéet dafa am mission bu la yàlla dénk Oustaz Adama Gueye mission la ko yàlla joxoon yàlla na ko yàlla fay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ngeen gi mbindeef ñi yàlla bind ñépp moo ci gën te dañuy jàng ci kaamil bi alxuraan ni ka innaka mayitun wa innahum mayitun yow muhammad salaa sallam da ngay faatu keneen ku dul yow it day faatu kon li fi nekk moo ñu waajal suñu bopp maam ya dem nañ bàyyee dem nañ yaay ya dem nañ bàjjen ñu baree bare keneen ak keneen yow muy dégg waaye la sa bopp ndax sa à bientôt xamoo suba la xamoo mois prochain la xamoo année prochaine la kon da ngay waajal sa bopp balaa loolu di ñëw loolu mooy mbir mi leneen loo def lu dul loolu nag yow yaa ngi nax sa bopp intérieurement te loolu gën a garaaw waaw tey jii bu la malaakul mawti ni la woon a ah, sëñ bi dangaa war a dem de li ngay njëkk xalaat mooy man say samay jaamu yàlla fan laa ci tolloon koor gi ma doon def est-ce que doon naa woor normal julli juróomi kenn duma gis sa jàkka ja sarax duma ci góorlu tey jii kun fi annoncé woon dangaa war a ñibbi moom dootoo lekkati dootoo naanati te nag lii mbir mi mooy nga waajal sa bopp fii balaa mu lay bett parce que al mawtu laa yaati illa baxtatan dee moom buy ñëw day jekki rek daanu sa kaw dafa mel ni oto bii daw ci APS bi rek accident dañ koy prévoir da ngay jékki-jékki mu daw ba yàgg rek pënu bëni mbël oto ba xalam kenn du ko sóoraale dee noonu la day jékki-jékki rek ni këlëb sa kaw a ah, yàllaa ko wax de al mawtu laa yaati illa baxta buy ñëw day bett kon nañ waajal suñu bopp soxna yi macha allah àdduna loo ko bëgg bëgg bëgg du kërug saxuwaay waaye kërug jaar jàll la kërug jaar jàll la tukki la boo xam ni da fiy jaar jàll indi saa salaam noonu la koy xawoon dañu man àdduna ni ma ko jàppee dafa mel ni damay tukki jaar si ak garab rek tëdd fa di feexlu après damay jaar jàll ma dem kon noonu nga koy jàppee mu doon lu oyof alal jeeg pouvoir yéeg lépp lu mën a doon fi ko fekk fi nga koy bàyyi lan moo ci am solo mooy la ngay yóbbaale sa bàmmeel loolu nga war a góorgóorlu beneen bi mi ñuy wax ci wàllu rey njaboot ndegete am na ñoo xam ne dañoo ragal njaboot allahu akbar yow bi ngay ñëw ñaata nga indaale bi la yàlla di bind ngay judd ñaata nga indaale dara zéro franc nga yoroon tey li nekk sa loxo kan moo la ko jox ak fan la jaar ba ñëw léegi njaboot gi war a génn ci yow ngay jéem a def ay pexe ay technique ni man daal bon si j'aurais trois enfants ça suffit allahu akbar est-ce que noonu la war a demee yàlla nee na wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq bu leen rey seen njaboot gi pour pour pour pour pour daw ñàkk yow kan moo la wax sa wërsëg temps la kan moo la budgété sa wërsëg ne la yow cent millions nga war a am wala deux cent millions kan moo la xabaare sa wërsëg xamagoo ko njaboot gi ni nga amee wërsëg ñoom noonu la ñuy amee wërsëg ah yow da fiy jóge da ngay lekk sa wërsëg ba mu jeex nga dem mais njaboot gi dañuy lekk seen wërsëg ah kon jullit day gëm yàlla wóolu yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon benn mbir bu am solo nee na boo leen di denc soxna ni ngeen denc soxna ni ngeen bëgg tan mën a am njaboot ndax man ak samay moroomi yonent dañuy pookare wante yowmal xiyaam kan mooy ëpp maas kan mooy ëpp mbooloo kii ñëw indi fukki doom yow nga ñëw indi ñaar fukki doom ak ki ñëw indi ñaari doom bokku leen kon wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq loolu esprit occidentaux yi la ay su ma amee njaboot gu bari fan laa koy dundale yow bi ngay ñëw loo indi te yow yàlla da lay jot li ngay jox njaboot gi donc ab lantinoor kese nga combien de parents la yàlla éliminé njaboot gi gën a macha allah ah dëkk ci étage wari 4-4 te seen papa te néegi ñax la dëkkoon ak ay kii misaal yaa ngi ñii ñu koy dund kon mbir mi du ci yow yàlla la danga koy gëm ba pare nga wóolu ko walla wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq ku la gën a ragal ñàkk kooku mooy dee ci ak ñàkk yàlla na ci yàlla musal waaw ñàkk da nga koy ragal mais pourquoi ngay ragal ñàkk waru ko ragal yow liggéey moo la war liggéey liggéey moo la war liggéey yil wërsëg nag yàlla programme na koo pare te ni suñ jëmm yi uutee noonu la suñ wërsëg yi uutee lu fi waay yor yàlla moo la ko jox en tout cas sa loxo bi bu ci lu xaram tegu bul sàcc bul wor bul trian bul tappale parce que lu xaram loolu nag ay duma lay jural yomal xeeram waaye lépp lu lew nga jaarale ko fa nga ko war a jaarale mu ñëw ci sa loxo bi nga jëfandikoo ko tuyaaba lan la ciy bindal yonent bi saa salaam nee sarax yi gën ci sarax yi mooy sarax bi ngay joxe sa kër allahu akbar joxe nga ci kër gi 2000 francs dépense ak nga génn ci biir saraxe 10 000 francs 2000 yi moo ëpp doole ci yàlla ndax lii mooy farata kon jullit da ngay gëm yàlla wóolu yàlla man nga sa métier boo xëyee dama liggéey yonent bi saa salaam lan la ko misaale neew na bu fekkoonte ni da ngeen a wàkkirlu ci yàlla bàyyee mbir yi ak yàlla ni muy wërsëgale picc yi noonu la leen di wërsëgale picc yaa ngi nii amuñu benn sàq amuñu benn saag saagu dugub ñoom ñëpp buñ xëyee dañuy dem naaw lekk ba suur indaale seen jaboot ñu lekk mais ñun dañoo wàkkiluwul ci yàlla danga jàpp ni waa ji daal am na koo xam ne boo demee mu defal la taf yëngal def ay tappale ba activer le wërsëg wi ça c'est faux loolu amul wërsëg wi yàllaa ko yor te bu jotee la la koy jox ka ngay dem di ko seeti su amoon wërsëg doo ko teg bët su amoon i pexe doo mën a jot ci moom waaye nag day am ñu muy jaxasool def na ko su dul noonu fexe ba nax la lëëra la yow li ngay ñaq di ko sonn ngay ñëw di ko jox moom muy noos rek ngay gën a souffrir rek da ngay lànk yow ak yàlla la yàlla yow laa yaakaar yow laa bëgg dimbali ma mbir mi yow parce que mu fi ñëw aw woon dara tey it lépp lu ma fi war a am yaa ngi ko war a jox kon wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq amal téeméeri doom soo ko mënee am takkal ñeenti soxna soo ko mënee takk ndax yoroo leen yàllaa leen yor comme yee de parents la fi yàlla éliminé kër yi gën a neex njaboot gu gën a tekki am pagaay kon mbir mi du ci yow mais ci yàlla la aaye boobu lool la ñuy loolu la ñuy wax foofu beneen bi yonent bi sallallahu alayhi sallam jàngale na ko ci wàllu góor ak jigéen ndax suñ société ni muy doxee ku ne xam na ni yoruñu société islamique mais islam nanguwul ay góor ak i jigéen di jaxasoo da koy tere wala taqrabu zina lii di wàllu caaxaan dañu woon bu leen ko sax jigéen ndax nee na góor ak jigéen du ñu wéet mukk lu dul ni seytaane mooy ñëw eh, ñetteel leen fexe ba jaxase leen kon yow yaay daw arab yi dañuy wax naan ki daanu ci kàmb gi nee na ki def njaaxum bi nee na kooku du champion de mais kan mooy champion mooy kii daw ba rëcc olof ni daw ba rëcc ci ngóor la bokk yow dawal yaay tapet bi yaay ngaaka bi yaay dox bi j'accepte waaye l'essentiel kàmb gi moom duma ci dugg kon noonu la ab jullit di doxe lépp loo xam ne da lay xëcc jëmale ci ay caaxaan ci ay moy naka su dul noonu rawatina réseaux sociaux yi ku ne xam na ni su format éducatif bii ñuy jàngee njàngum diine mi ni mu ci waroon a mel dëgg-dëgg dafa xaw a des kon yow waajur wi yaay yar sa njaboot teg leen ci raay bi ndax yowmal xiyaam yàlla yow lay téye ni la hee yow waajur wi taxawal mënoo dugg àjjana noonu parce que dama la dénkoon njaboot xale yaa ngi noonu téléphone yaa ngi noonu wifi yaa ngi noonu ay jamono fi toll aca rek jamono tollu fii de ndax da nga am responsabilité boo xam ne da nga ko war a rendre rendre compte sa kanamu borom kon da nga koy xeex sa kemt lay kàttan lépp loo xam ne mën naa puusa xale yi ci ak mooy nga freiné ko lépp loo xam ne mën na yokk ci ñoom ak ragal yàlla nga jàppale leen ci waaye nag ne fi di connecté wu wala di dugg ci naka sudul noonu comme ni ñu koy waxee léegi yooyu yëpp giraawaali kese day indi parce que jamono moo fi tollu yéen parents yi ñu ci bari xale yi dañ leen a xaw a am xel parce que njàng mi xale yi jàng ak technologie fi mu toll cinq continents yi ñu woon xale yi dañuy wër xëy di ko wër nii te yow génnoo ko ëttu Kër Maysa xale yi ña nga États-Unis ña nga Asie ña nga Europe ñi ngi Afrique fu ne la ñuy tourné ci internet bi lu ne ñu di ko gis lu ne ñu di ko xam te yow waajur yi xamoo li xew kon nag faaw nga leen di jige di saytu xale yi naka lan toogaale wala taqarabu zina alxuraan nee na bu leen ko sax jige bu leen ko bu bu leen ko def mais bu leen ko sax bu ko sax jige beneen bi alalu jirim aay yi dañu koy tere bari na fi ñoo xam ni nëga ni waroon naa fekk wax dëgg yàlla ñu am départ ci wàllu économie ci wàllu àdduna waaye yàlla na toog xale yooyu ba seen waajur di génn àdduna am ñu ñëw boof ca alal ja di ko lekk di ko noose di ko lekk di ko noose ba alal ji ni pëng xale yi tey ñi ngi nii amuñu dara luñ def yàlla mu ni inna alladina yaakuluuna amwaalal yataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna saira yàlla nee na alal jooju ñuy lekk lekk ñu lu dul xali safara alalu jirim ku ko xam danga koy daw ni ngay dawee gaynde dëgg la nag buñ la ko joxee war nga ko encadrer ci am njàngam ci formation tete ko comme nu raw ni ngay tettee sa njaboot ndax yonent bi saa sallam moom dafa juddu gisul sax papaam à l'âge de six ans yàlla jël yaayam mais lii lan moo ko gën a metti mooy ngën gi mais natt yi gën a metti yàlla moom la ko teg juróom benni at mu jël yaayam mu nekk kan maamam Abdul Muttalib quelque temps mu jël maamam mu des ak Abu Talib waaye nag li mu wax mooy képp koo xam ni fonk na jirim jàppale jirim tete ko yow mal xiyaam boo ñëwee maa yow ñooy sasaloo kon loolu la sas lam jox ci képp koo xam ne yàlla jox na la jirim ngalawaay bu ko sonol bu koy buntu xataal bu koy duma ndax moom danga koo war a taxawee taxawaayu baay mu lay xoolee bëtu baay waaye bis boo defee benn distinction boo xam ne danga naan ñii ñëw samay doom ñee dul samay doom rek yàlla comme aaya bi nu waxoon léegi rabbukum aalamu bima fi nufusikum man ngaa nax ni ñu mais mënoo nax yàlla un million xale yi bàyyi nañ 5 million nga jaxate jaxase affaire mu nekk 6 millions nga ni fuuf lépp yàlla mu ne acca nan dem rek boo amul sens toroxtaa ngi fii lay commencé ci àdduna avant alaxira yàlla yàlla musal ñu ci kon alalu jirim yonent bi saa sallam it daan na wax naan alalu jirim fexe leen zakat bañ koo lekk ndax alal zakat da cee war boo yoree alalu jirim mu mat dix million bu la neexee mën nga koo jëndale ay terrain bu demee ba jëmmi jamono nga jaayal ko ko pour alal jamono màgg nga du investir ko ci loo xam ni perte nga du ci amee mais alal ji day gën a yokk bu dul loolu asaka moo koy lekk ba mu jeex kon alalu jirim lu sensible la waxuñu la nag nga daw ko bu la ko yàlla nattoo demal ci boroom xam-xam yi ñu ragal yàlla ñu teg la ci as parce que yonent ne woon na sama xeet bàyyiwuma leen fitna bu gën a rëy alal ak jigéen ñaar yi xeet wi li muy am ci fitna yépp foofu lay jóge am na koo xam ne ku ñàkkoon la dend ak jirim baayam dem baayam bàyyi ay bien mu commencé ñëw jige si di lekk rek di lekk rek di lekk rek ba jën yi pëng ñëpp di ci teg seen bët kooku bu amul sens bu tuubul yàlla jéggal ko maari day taali kon loolu ab julit da ko war a moytu parce que jirim mooy koo xam ni moom baayam jóge na fi te majoorul baayam jiitu ji na te majoorul kooku li war mooy ñu tete ko jàppale ko ba mu màgg nga ni ko say bien mi ngi nii kon ñi nga xam ne dañuy taxawu jirim yàlla yàlla fay leen jirim ji yàlla yàlla may leen xolu muñ dëgëral leen ban màgg di fàttaliku seeni waajur parce que lii importance su jàngal sa doom diine waajur wu jiitu ji ne papa ji dem na ma nga tëdd fee ca bàmmeel yow xale bi yaa ngi jàng alxuraan yaa ngi koy ñaanal moom de ay tuyaabaam du dagg dafa mel ni teewagun branche la rek robinet bu ñëw ci kër gi heure bu ubbee mu xeli loolu mooy nga bàyyi sa doom ci siraatal mustaqim jàngal ko alxuraan yar ko ci diine waaye boo ko jàngale woon jàngaloon ba mu dajale les diplômes di monde am doctorat yi ingénieur lu ne mu man koo def te mokkalul faatiha du julli du la ñaanal zéro ca kanamu yàlla kon ngalawaay bu ñu nasaraan yi nax jàng nasaraan kenn du wax ni baaxul axakay ah lu baax la waaye diine mooy priorité ndax ci la lay mën a fàttalikoo di la mën a ñaanal di la mën a nemmeeku loolu mooy li nga xam ni moom lañuy séntu si njaboot gi yàlla na yàlla dimbali ci ndax nag da nga koy waajal bàyyi sa doom ba mu am vingt ans duwaloo ko daara fatiha sax mokkalu ko te yow xamoo kañ ngay dem yow tubaab bi ndax na li la à l'âge trois ans il faut amener l'enfant au jardin nga yóbbu à la de six ans mu commencé dugg primaire collège lycée dem université fan lay jàngi fatiha fan lay xamee diineem mais bu amee ñetti at ñeenti at nga jox ko Oustaz Jili mu ne rek moom ci daara dinam nabi mu toqantal ko ci loolu mu nàmp alxuraan jàng alxuraan ba yaru ci loolu kooku macha allah yàlla mën na koo suturaal ba du fàtte mukk mukk mukk ay waajuram yàlla yàlla dimbali ci suñ njaboot bi. bokk na ci ginnaaw jirim yi muy wax ak commerçant yi waylun lil mutaffifin da ngeen koy jàng ci alxuraan ci ay commerce yonent bi de sàmmkat la woon commerçant la woon waaye ak baax waa ji ak baax bu fekkee commerce da koy jaarale yoon ay boo duggee ci marché bi taf yëngal yi tappale yi naxaata yi gis koo xam ne bi mu commencé commerce ak bi mu commencé yëg ci kaw diggante bu gàtt fekk li ko may mooy lekk alalu nit ñi ak loo am wàllu naas bi baatil ndax bu njëkkaan arab yi liñ daa def mooy boo demee di jënd marchandise day mat 100 kilos laay jënd 100 yi moom day mat sëkk waaye booy jaay jaay 90 kilos mu manqué wala quinze ngay teq rek di teq rek. loolu ci mesure ci natt yi da ciy dugg ci peese yi da ciy dugg ci jëflante même les pièces détachées da ciy dugg waaye ñëw la soxla na pièce nga ni ko ah bii de moom bonaa la boo xam ni moom macha allah ba ma joxee trente mille fekk dix mille lay jar nga dóor dóor rey ko tëj boppam nga jàpp ni ko original la trente mille lay jar fekk pakoti la nga tëj bopp bi yàlla nee na nax nga ko de waaye man mënoo maa nax alalam jooju nga yoxoo su lekk ko boo ñëwee yomal xiyam bala ngaa dugg àjjana di nga ko fay kon commerce mun ta ñàkk parce que faaw ñuy jënd ka jaay jigéen ñi nan ragal yàlla ci commerce bi da ngay wax dem ci nit yi diine yi ñu expliquer danger bi ci nekk ndax boo nee mètre mat na waaye yaar moom day manqué kiy jënd na nga ko xamal loolu tisi bi mu ngi ñëw ni la man 5 mètres laa bëgg nga taf yëngal jaay ko 4 mètres 50 lekk 50 centimètres am nga yaakaar ni loolu moom noonu lay demee noonu rek ndax nga ko fii mais yomal xiyam bala ngaa dugg àjjana di nga ko lijjanti c'est très dangereux nit ki dangay ragal yàlla ci ni ngay lante ak say moroomu jaam ndax loolu moo lay sonal sa diggante ak sa borom il faut bu ko attention les commerçants ndax commerce lu am solo la commerce nga mën a fekk nga jënde téléphone bi dix mille francs jaayee ko quinze mille francs am ci cinq mille loolu dagan na waaye day xaraam ma lebal la cinq mille nga fay ma six mille mille francs bi ñu ciy teg noonu islam d'accord ci loolu faaw mu commerce la yàlla ubbee bunt boobu cent pour cent deux cent pour cent waaye nag bénéfice bu ëpp lor sa mbokku jullit loolu jullit ñi dañ koo dañ koo war a moytu. parce que ay jamono da daa gis commerçant yoo xam ne bu nee nangam manqué na ñu denc ko stocké ko ci seen magasin yi duñ ko nangoo génne bu ñu demee ba nit ñi sonn sonn sonn sonn ñu gonfale prix yi nag yàlla mu ni moytu leen loolu moytu leen loolu parce que commerce li ci am solo mooy lu barkeel lu mu bari bari te barkeelul da ngay gën a dellu ginnaaw rek da gis koo xam ni commerce li tax mu. tardé li tax mu yàqu mooy tappale yim ciy dugal ndax nit ñi rek lekk alalu nit ñi rek loolu dalay tardé mais du la avancé la mais commerce boo xam ni boo waree génne zakat génne ko nit ki ngay jëflanteel nga wax ko dëgg réellement li am loolu moom barke rek moo ciy am avancement rek moo ciy am kon commerçant yi nan ragal yàlla ci li ñuy jaay li ngay nat na mat bu manqué nga wax borom daa manqué ñaar dërëm yi ñetti dërëm yi juróomi dërëm yi loolu lépp ay weccat lay sew sewaan yoo xam ni àqu jàmbur la àqu jàmbur la boo amee ordonnance su 5000 francs nga dem pharmacie joxe 4500 duñ la ko jaay waaye bu fekkente ni 5000 bi am na vingt 25 yum la ci war a delloo moom it mu lekk ko lekk na sa àq kon àq yu sew sewaan yooyu lëre na la de mais balaa dugg àjjana da la koy fay ndax yomal xiyaam yonent bi saa salaam nee na àdduna eh, bu leen jàpp ni ki perte mooy commerçant bu doon tudd naan diw ak a bari alal mu jékki-jékki daanu bu yorul dara nee na kooku pertul de nee na ki perte mooy ki ñëw yomal am indi julli yi bari koor ji bari tuyaaba ji bari lool meew ñu ni ko yow taxawal balaa ngay dugg àjjana faw nga fay aqu jàmbari ndax xasoon nga diw lekkoon nga alalu diw nangamoon nga nangamoon nga ñu jël tuyaabaam yépp fay ko gaa yooyu ba tuyaaba ji jeex malaaka yi nii ah yàlla waaye de tuyaaba mi jeex na léegi nan lañuy def mu ne ah jël leen bàkkaar yi gaa yi ngeen xëpp ko ko ñu jël bàkkaar yi gaa yi xëpp ko ko jël sànni safara yàlla nañ ci yàlla musal kon àq yu sew sewaan yooyu boo ko xamee danga koy moytu amaana boo ko xamul islaam mën na la koo jéggal mais loo ci xam war ngaa delloo waa ji fukki dërëm ne ko ah war naa laa delloo fukki dërëm de léegi nan la ñuy def dama la koy jox nangam wala dama la koy may bu la ko mayee moom islaam waxu ci dara waaye boo ko lekkee noonu mu war laa fay fanweer jox la 200 nga képp fukki dërëm yi ah rëcc nga fii de waaye fële moom doo rëcc kon yu sew sewaan yooyu aaye bi dañu koy dañu koy moytuloo beneen bi ci topp muy wax nag ci wàllu communication comme ni ñu ko waxee woon sànq. wala taxfu ma laysa laka bihi ilm allahu akbar doomu aadama bul wax loo xamul bul dugg ci loo xamul ndax wax dafa garaw fi ne wax ji ñuy wax nii boo ko sànnee ci internet bi cinq continents yi doon wax léegi dem na fa àdduna bi yëpp a koy dégg su jubee defar waaye bu yàqee yàq lu baree bare bari de million doomu aadama mën nañ koo déglu kon li ngay wax danga koy xalaat seggu ko préparé ko ba soo ko génnee bu duggee ci nopp xool man koo accepté cer yi mën koo jëfe mu bindal lu tiyaaba waaye bul nekk ab sar-sar mooy ko bari wax koo xam ni day bàyyeeku rek day wax rek day wax rek loolu baaxul ab jullit du comporté woon noonu ndax thème bi mooy comportement jullit kon li ngay wax danga koy contrôler ndax wala tax fu ma laysa laka bihi ilm inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'uula yàlla nee na lii nga xam ni mooy euh, sa nopp yi nopp yi li muy dégg danga ko war a contrôler yaa ngi tëju ci néeg bi di déglu misik pàkkar ñi ba doyal kenn gisu la waaye yàlla gis na la xaraam c'est interdit yaa ngi toog téléphone bi xaaju guddi di seetaan lu doy kenn gisu la waaye yàlla gis na la malaaka yi gis na la te yowmal xiyam boo tuubul ay duma moo lay xaar te ñaata nit ñooy dox ci kaw suuf te duñ dégg combien de personnes ñoo nekk ci àdduna bi yàlla jël ci ñoom xéewalug dégg bari na kenn mënu ko lim yow nag yàlla may la bu la nee xee nga ne ah diw nga wuyu ngay dégg normal au lieu que xéewalu nopp yooyu nga sant ci yàlla nga ciy diglulu lu xaraam loolu ay duma la lay la lay jural yomal am beneen bi mooy gis xoolal xéewalu bët ñi hmm, am ñi seen bët doon metti xam na lan mooy xéewalu bët boo demee hôpital ba gis nit ñi ñuy womat di nga xam lan mooy xéewalu bët kon bët yi day ciy jàng alxuraan di ci xool lu baax di ci xool lu dagan loolu mooy importance su importance su bët. ndax yii yëpp ay organe la yoo xam ni li ñuy def dañ koy enregistré te ay responsabilité la ñuy doon yowmal xiyaam liñ ciy jëf yàlla dala koy dala koy àtte. bokk na ci ba tey wal fu aad mooy xol sa xol sa yëg-yëg. doomu aadama yàlla moo ko bindee mu am ay yëg-yëg sentiment doon nit ku lewet ku baax ndeysaan waaw nit ku tabe nit ku nàngam loolu yàlla moo la ko bindee sa yëg-yëg yooyu encore dafa am ay njeexental yu muy def ci sa jëf yooyu yëpp borom bi subhaanahu wa taala da koy contrôler di ko lijjante ak sa borom beneen bi muy jeexale mooy wala tamsi fil ardi dox ci suuf di ngande ngandelu di pëkkëréwu alxuraan bul ngande ngandelu ndax mënoo rëy rëylu ba toll ni montagne yi bi ngay dox it munoo diis ba dox suuf si xar simple jaam nga doxal dox bu yem pour hmm? pourquoi doomu aadama di rëy rëylu di yëg boppam di aj boppam foo xam ne yàlla tewu ko fa te attention yonent bi sallallahu dani ki nga xam ni dafa wàcce boppam te yàlla tax kolu yàlla moo koy yëkkati ci bëtu nit ñi yàlla mooy def ci xolu nit ñi yu bëgg waaye koo xam ni dafa bëgg a dox ci kaw bopp nit ñi yàlla dalay toroxal àdduna avant alaxira kon doomu aadama li am solo mooy modestie mooy souplesse mooy wàcce sa bopp wàcce sa bopp loolu islam da koo gërëm islam da koo jàngale yonent bi saa sallam ni mu yare woon saxaaba yi suy waxtaan ak ñoom kenn du ci yëngatu dañ naan tekk ba nga xam ni picc mën naa ñëw sax daanaka dal ci seen kaw te duñ ko sax dàq ndax concentration bi ñuy am yar bi ñuy am discipline bi ñuy am ci kanamu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon doomu aadama ana qaaroon ana firawna ana buur yooyu nga xam ni yàlla da leen a joxoon ay pouvoir ci kaw suuf firawna demoon na ba noon wax naan man maay yàlla wa ma wa ana rabbukumul ala man maay yàlla jàpp nit ñi di rey di def lu ko neex waaye fan la mujj ak Moussa ci géej gi yàlla toroxal ko da koo toroxal qaaroon li ko yàlla joxoon ci alal kenn mun la koo expliquer gis nga alal ju bari day metti fii metti fële yonent bi saa dani aka baax waa ji nga xam ni eh, alal di nekk ci moom da koy jëfandikoo fu baax ndax dërëm bu jaar ci sa loxo dinañ la laaj fan nga ko jële ak fan nga ko dépensé waa ku xam lii li la yàlla jox doo ko doyloo pourquoi ngay jëli fi jàmbur ah kon doomu aadama ngalawaay bul rëy rëylu bul doon nit koo xam ni ah da ngay wonewu da ngay jaagar jaagari loolu islam bëggu ko islam gërëmu ko kon doomu aadama eh, li ngay def mooy wàcce sa bopp kullu zalika kaana sayuhu inda rabbika makruha yàlla nag li muy wax mooy gis nga jikko yi mu la limal fii yépp depuis aaya 21 ba aaya 38 fi muy jeexale neena na jikko yi yépp yëpp yëpp yàlla gërëmu ci benn benn benn benn ab jullit day daw yooyu lekk alalu jirim wax naka su dul noonu di puukarewu di def naka su dul noonu jikko bu mu la tuddaloon fii rek lim ci bëgg mooy nga éviter ko nga moytu ko kon doomu aadama li muy wax mooy eh, nga bàyyi xel bu baax a baax a baax bokk na ci ba tey it fi nga xam ni dañ koy leeral mooy kan mooy jullit qui est musulman kan mooy jullit ndax dangaa war a xam ki nga doon pour xam ni ngay taxawe ñu xam ni doomu aadama yi jullit ak yéefar ñoo nekk ci kaw suuf imma nga nekk muslim wala nga nekk kaafir moom da ngay gëm walla nga weddi léegi nag boo bokkee ci ñi gëm yàlla doon ab jullit am na noo war a comporté woo mu ni jullit mooy koo xam ni day saxal ni moom yàlla moo ko bind yàlla moom lu am la ndax asamaan si ak na mel biddiw yeeg jant beeg weer wi amul kenn koo xam ni yaakaar naa war ngaa mën a wax ni lii keneen ku dul yàlla moo ko def kon yàlla moom existé na yàlla am na jullit nag dangay saxal loolu nga gëm loolu nga jàpp islaam mu nekk sa diine ñun ay diine islaam mooy suñu diine inna diina indallahi islaam yàlla nee na diine ca yàlla mooy islaam kon nag ñu ngi sant yàlla biñ yàlla boolee ci waa islaam ba pare ñu nekk ay jullit ba pare moom ngën gi yonent bokk ci ngën gi xeet loolu lépp ay faveur la yoo xam ni yàlla moo ko defal xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa wa sallam kon jël nañ islaam mu nekk suñu diine waaye nag ñu jël alquran mu nekk suñu hidaaya muy suñu guide fi ne boo gisee dëkk bi ni mu jaxasoo nii kër yi des fois mu yëngu dañuy dañoo jàngatul alxuraan dañoo toppatul alxuraan ndax problème heure bu amee solution bi mi ngi ci alxuraan kër yi lan moo koy faral di yëngal mooy jalgati ñàkk maandu wala tooñ wala def na ko sudul noonu yooyu yëpp alxuraan traité na ko pare kon heure boo demee ba am problème ñëwal nga ubbi alxuraan nga wax ni lii alxuraan lan la ci wax ah waa ji mi ngi nii jekk na jekk jóge fi bàyyi fi ay jirim alxuraan wax na ko wala tudd ñu ko léegi commerçant yi ni ñuy jëflante alxuraan wax na ko wa maa faratnaa fil kitaabi min min shay yàlla nee na kaamil bàyyiwul dara bàyyiwul dara kon lépp lu la jaaxal ñëwal ubbi alxuraan xam ne alxuraan traité na ko ba pare nga jàpp alxuraan mu nekk sa sa guide nekk sa référence lépp looy wax nga tibbe ko ci alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi ndax jullit bi ngay waxal ni ko ah lii de verset la lii aaya la su ko weddee rek day génn amul droit weddi ko waaw looloo tax jullit bi ngay wax di ko wax alxuraan dalay mën a diglu dalay mën a gëm parce que lii ngay wax nii bu doon waxu leneen la ci lay sikki sàkk mais alxuraan bi nga xam ne yàlla wàcce na ko mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent nekk juróom benn fukki xisib nekk juróom benn junni aaya ak lu teg yàlla wàcce ko ci depuis yonent bi sallallahu ba keroog muy lem asamaan ak suufam ba pare mu garanti ni maa koy wattu kon li ciy wax war nga ko mën a gëm waxuñu la waxuma sàmba waxuma la waxuma demba mais waxu borom asamaan ak suuf moom lañ lay wax beneen bi mooy wayu addi arkaanul islaam alxamsa léegi nag comme nee nga jullit nga arkaanul islaam alxamsa moom ponk juróomi nga la waay nag ci góorgóorlu mooy gëm yàlla gëm yonent bi boo boo nee gëm naa yàlla te gëmoo yonent bi yàlla mu ne d'accord ma il faut nga gëm yàlla gëm yonent bi taxawal julli foofu oustaz daan ci insister bu baax a baax a baax yàlla na yàlla yeesal njéggalam ak yërmandeem moo ko julli day julli hayya ala salaa loolu arab la mais li muy tekki mooy eh kaay leen ci jàkka ji hayya ala salaa mooy répondre à la mosquée foo aller à la mosquée mais nekk sa kër di fa fas yéene jullee bu keneen defee noonu xaa dañu muy tëj jàkka ji te yàlla mu ni wa annal masajida lillahi yàlla nee na jàkka yi maa moom danañ jullee ci jàkka ji góor day dem jàkka jigéen ñi ñooy jullee ci kër yi mais góor day dem jàkka te jàkka li ci nekk ci wàllu dimbalante wàllu social wàllu nemmi konte kenn mun la koo limal ndax bu nekkee juróomi ñaar fukki borom kër ci dëkk bi juróom fukki yeeg juróom-ñeenti julli si bu amee ko manqué dina laajte ne ah diw de ñëwul daa feebar wala daa tukki ñaar yooyu moom faaw ñu posé question diw li tax ñëw gis ñu ko ci jàkkay ci fajar gi imma dafa feebar wala imma dafa tukki waaye nekk ci dëkk bi pendant un mois pendant trois mois six mois kenn mun laa wommat nga ñëw dugg ci jàkka ji da nga ne ab jullit nga loolu liñ koy tuddee mooy waa ji dafa feebar jullit nag day feebar bu feebaree ay mbokk jullitam ñoo ko war a ñoo ko war a faj ustaas yi boroom xam-xam yi ñoo koy laaye biir fàttaliwaat ko xëccaat ko ndax seytaane day xëcc doomu aadama pour boole ko ci groupam affaire yi xëccoonte la la aqudanna lahum siratakal mustaqim yàlla dañuy gis nga yoonu ju seytaane dañuy yoonu jub yi man fi laay farankulaaye jigéen ñi ku ciy góorgóorlu ma bëmax la nga dugg sama groupe góor ñi ku ciy góorgóorlu ma bëmax la nga dugg ci sama groupe waaye nag yàlla ni ko illa ibadaka minhumul muxlasin yàlla ni ko am na sama jaam yoo xam ne moom mënoo ci ñoom tus yàlla na ci yàlla boole mooy ñi nga xam ni yàlla moo leen di copte sélectionné dugal leen ci mbooloo seytaane kim gën a mën a sonal kim gën a mën a teg bët mooy kuy góorgóorlu jëm ci yàlla parce que am na ñoo xam ne moom dèjà làq na leen ba bare moo ngi ci aw ña ngi ci aw waaram di liggéey ñooñu soxlaatu leen waaye koo xam ni surtout bilaal yi bilaal boo xam ni cinq juróomi yoon lay woote ci jàkka ji kooku moom la seytaane gën a bañ ci dëkk bi parce que mooy woo nit ñi kon heure boo nee bërët jóg jëm ci jàkka ji war a woote da nga xam ne seytaane mi ngi lay mi ngi lay ciipatu mi ngi lay xeelu mi ngi lay bañ mais bu ko faale dimbandikool yàlla nga xam ni loolu mooy yoonu yoonu yàlla imaam yi laa même chose juróomi julli ndeysaan ñu koy jiite mbooloo mi ab jullit day julli ndax yowmal xiyaam dossier yi li ñuy bari bari bari julli la ñuy njëkk a xool su baaxee lépp bu baax waaye bu bonee dara doolul baaxati des fois nga waxtaan ak ay soxna yoo xam ne dañ naan ay man di julli moom ci wàllu laab oustaz jàpp sangu janaba ah boo waree julli li ngay jàng loolu ab julli da ko war a xam ñoom seen natt yeeg seen bagage yi ni koy lijjantee kon ni ci am nga xew wala ndeyale nan la lépp da nga koy lijjanti mais bu dee sa wàllu diine moom nga teg ko à côté yaa ngi ci danger de loolu mooy priorité jullit da ngay jàng sa diine li ngay wax ci julli nga jiim koo xam parce que julli méttiwul yàggul yàlla may na la vingt-quatre heures ci journée bi te lim la demandé daanaka matul vingt cinq minutes yokkoo ko ab jullit day julli iqaami salaa ita i zaka alal ji zakat dañ koy génne ci ak jur dañ koy génne ci mbay dañ koy génne ci alal am na ñoo xam ne xamuñu sax lan mooy zakat dix ans yàlla nga la jox ay millions ngay lekk rek di gonfale rek te li ngay lekk ci wàllu zakat loolu àq la yoo war a génneel jox ko ñeneen innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masakin yàlla nee na lii moomoo ko da ko war a génnee masalan am nga 500000 ca banque ba denc ko ren ba déwén mu def fa un soo ko génnee au lieu que ngay lekk lépp sharia danaa la lii de da nga ko cee war a génn am ñoo ko jox moomatoo lépp ci mbay mi noonu la ci jur gi noonu la loolu lépp jullit da ko war a xam kon ita izaka jullit day joxe azaka mooy tax yàlla sàmmal la alal ji mooy tax mu aaral la ko mooy tax mu yokk waaye bari na koo xam ni daa jékki-jékki nërmeelu li ko yóbbee mooy ñàkk a génn zakat lekk yëfi jàmbur rek dem ba yàlla teg ko ay natt alal ji mujj naax saay wa soomi ramadan moom lañ génn léegi bu yàggul yàlla yàlla nangul ñu ko mooy woor weeru koor yàlla moo la ko sant yàlla mi la bind moo la sant koor ma sàmba sant la ko ma demba sant la ko àjjana am na fa bunt boo xam ni woorkat ji kese ñoo fay dugg yàlla yàlla boole ñu ci baabun yuqaalu lahu rayyaan rayyaan yawmal xiyaam yàlla day ubbi porte àjjana boobu ne ay na saimun ana ñi doon woor ci àdduna gaa mais bu fekkee daaw woon woor est-ce que nga mën a jóg est-ce que di nga mën a dugg yow déjà suñ protocole àdduna yi rek stade yi rek boo ci bëggoon a dugg yoroo billet gis nga li ngay daj fu ne yaa ngi fay xalaat fu ne yaa ngi fay combantu te fële ay malaaka la laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yu yumaruun foofu kenn mënu fa burle bu ne dugg leen ñi doon wor àdduna sérieusement ñoom ñooy mën a dugg ñi doon tappale ñépp kenn du mën a dugg kon da nga koy def ni la ko yàlla sante boo wéetee nga xam ni koor gi li ci doon jàngee mooy taqwallah mooy ragal yàlla kon wa sawmi ramadan beneen bi mooy wax hajjul bayt mooy aj néegu yàlla ba yàlla jox la ay millions ngay tabaxi étage du ne nga def ko ci àdduna te xalaatoo sax màkka mel ni yow yàlla boolewu la ci ñi war a dem màkka du noonu parce que arkaanul islam lan wax yow jullit nga te lii dafa gàllu ci saw loos waaye nag boo amoon téeméeri at benn yoon la ko yàlla farataal ci yow boo xësee dem màkk benn yoon wàcc na la te dugg nañ ci weeru koor yi lan moo ci topp koor koor digg tabaski tabaski ñu dugg ci weeru aji su ko defee ñi ko yàlla wërsëgal nga dem aji benn yoon mu wàcc la boo ko defee benn yoon bu la neexee dootoo ko defati c'est fini am nga alal sa papa de moom jotul woon aji wala sa yaay bu la neexee nga yéenal ko dagg biyee dem màkk ajali ko yàlla da koy nangul loolu lépp islaam may na la ko waaye nag bu la yàlla yombalee nga jàpp ni alal ji moom pour noos la man ngaa raw fii mais doo raw fole lii mooy arkaanul islaamul xamsa jullit war koo jàng war koo xam war koo maîtriser nga la waay nañ jàng suñ diine jullit day jàng diineem xam nga ne oto yi gaare nii mais nit ñi tëbuñu tëb mën koo dawal kër yii nii maçon yi tëbuñu tëb mën koo tabax yére yi sol nii téyër yi tëbuñu tëb mën koo ñëw mbiri àdduna yëpp da ngay sonn bala koo man waaye sa diine moom jaralu la lu toll ni tarafatal ay ni yaa ngi nax sa bopp de faw nga sonn pour xam sa diine da la ko war a jaral ndax boo duggee sa bàmmeel moom lan lay laaj yowmal xiyaam looloo fay compter ah te du boo amoon cinquante ans soixante dix amul problème booy tàmbali yàlla di defal ak yombal kon su ko def ñu ngi jégalu bu baax di ñaanal suñu woy dawli yi ndax comme ni ñu koy waxee rek waxtaan wi ah ni ko suñ mbokk daa waxee di duuf ci nag wi xëy li ci cin li ah dañ ciy wax lenn rek jox mbokk yi macha allah bu amee luñ ciy yokk wala luñ ciy jubbanti waaye bu ñuy fàtte di ñaalal suñu woy dawle yi ñu jiitu di ñëpp yal na yàlla jéggal leen jërëm leen yal na leen yàlla defal ajjana firdawsil aala mu nekk seen kër ñi nga xamante ni ñoo nekk ci lalu feebar yal yàlla fëgg seen bopp yal yàlla saafara leen ñi nga xam ni ñoo nekk ci ay xat-xat yal yàlla génn leen ci kër yi nga xam ni day faral di yëngatu yal na yàlla téyewaat kër yi ndax jikko ju rafet mooy téye kër yow boroom kër kër lu metti la ndax ñaari pression ngay doxee mooy pression maîtriser njaboot gi waaye pression yi wuti pour lu dundee borom kër heure boo ne ko saaku ceeb bi jeex na wala diwlin ji jeex na wala bi carte wi jeex na ndeysaan li muy njëkk xale mooy yaa yàlla bu ñu coupé wala yàlla nangam kon li muy doxee noonu ak leneen li nga xam ni pour yar njaboot gi ba sauver leen ku ne xam nañ loolu metti na waaye lii base bi lii fondement bi mooy nga taqoo muñ ndax inna allaha maa sabirin boo muñee yàlla day woyofal yan bi bul mës a découragé ab jullit du bàyyi dañuy wax ni sëy daanaka ñi ci ñi ciy champion yi mooy ñi sëy ba dugg bàmmeel ndax dafa métti dafa yàgg dafa compliqué moo yar ñooyam ndax seytaane da ciy laxasu comme ni ñu ko waxee woon sàng kër goo xam ni diine ji demewul noonu njàng ma demewul noonu seytaane da leen di fawe chaque jour xuloo xeex ci lañuy dëkk loolu pour mu jóge fa il faut ñu jàng diine jàng alxuraan yaraat njaboot gi loolu moo tax seytaane man faa daw waaye kër goo xam ni duñ julli duñ digle lu baax duñ tere lu bon mbëkkante guddeeg bëccëg moo fay am ndax duñ xam ni war a il faut ñu jàngat diine xam ni diine mooy priorité alalu àdduna pouvoir yi luñ fi mën a am diine mooy njëkk diine mooy mujj yal yàlla dimbali ñu ci yal yàlla teg ci siraatal mustaqim yal na yàlla dëppale xol yi yàlla may ñuy fekk ko ay at yu baree baree bari li ci jub ci yàlla li ci dëng ci ñun la ñàkkook fasa ak gàttu xam-xam di ci tuub di jekkalu bu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa salaam wa rahmatullah ustaas ñu lay nuyu waat baax di la ñaanalaat di ñaan borom subhaanahu wa taala yal na yàlla barkeel sa xam-xam lim fi génne tegu ni si alquran ak sunna sa alquran ak sunna bépp waxtaan bu si tegu nit ki dina ko mën jariñoo yàlla na ko jariñoo nan def na saxaaba yi daan def bu alquran wàccaan ñu jëfe ko kon lii mu fi jot a wax yàlla na nekk dina jëfe ba déwén incha di nuyu mbokk yi nga xam ne wàcc na si jotaay bi nekk ay borom xam-xam Serigne Alassane Niane mu canama ñu ngi koy nuyu di ko siyaare Serigne Sada Seck ibnu Serigne Maodo Seck ak oustaz As al imam nekk doom si oustaz Adama Gueye ñu ngi koy nuyu ak oustaz Mouhamed nekk doom si oustaz Adama Gueye di delloo war rek di ñaanal suñu way juró yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal euh, fees palaasam dafa jafe fees palaasam dafa jafe dafa am lu ko yàlla mayoon kon loolu yàlla mayoon ko ko yàlla na ko yàlla fay si barke alxuraan duun dellu mukk duun bàyyi mukk di ko ñaanal ndax dafa am fu mu toll si Kër Maysa rawatina tunu Kër Maysa kon bu ñu tey jii chaque année mu ko daan def tey nekku fi sunu yaram dina daw sunu xel ne dem si moom waaye yàlla mi nga xam ni mooy def lu ko neex fa'aalun limaa yuriid yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla jéggal jubbanti na ay nit ñoo xam ni teguñu siraatal mustaqim mu jubbanti leen si ay waxtaanam ay xutbaam ba mu tegu sunu siraat mustaqim sa jubal benn julli rek ba mu tegu sunu siraat mustaqim yi wi si nekk kenn xamuñu toll kon Oustaz Mansour kontaan naan li fi génnee doy na sëkk mat na sëkk dañ lay ñaan borom subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla defal sa misaanul xasanaat ñu jox Ablaye ñu mbokk yi war a sànnee kàddu incha allah ñu sànnee kàddu. bu ma gisee tey soxna aji ak délégation famille bi sama yaram dafa daw. waayente nag euh, àdduna mooy bindoo noonu ah comme yonent sallallahu alayhi wa sallam moom moo dem ak ah, kon keneen du fi des dañ koy ñaanal fa mu nekk rek yàlla yàlla defal ko njéggal ak yërmande te xam ne nag oustaz am na ndam parce que fee lañ ko commencé woon fee xale yi toog ay chaise la woon ña fa nekkoon matuñu woon fanweeri nit yàlla di def affaire bi dem am réussite parce que oustaz lépp lu mu laa rek dafa am barke kii wax na ko man xam naa ci lu bëri bëri loo xamante ni diggante yu mu defar yebul woon rek tubaa Gueye penc mi defar dafi ay sëy takk na fi lu nekk def na fi lu nekk ñi ñoo xam ne dañoo xuloo woon mu jubale leen lool man témoin dama ko dama ko fekkee dama ko gis. kon oustaz yaakaar naa euh, ñàkk nañ ko waaye nag euh, ñàkkuñu ko parce que ku jur doom deewoo bu ñu xoolee gis aas gis moo daan ak ñeneen ak ñeneen ak waa kër ga suñu xel day day dal bu baax a baax famille oustaz ñëpp ñëw nañ macha allah parce que oustaz bu daan ñëw. Euh, Touba Gueye ñëppay ñëw kenn du des surtout côté bi jàmm gën dem rek ñu leen di wax euh, soxna Mbène mi ngi naan euh, oustaz baaru dem ngeen toog waaye loolu defuñu loolu ku xool jotaay bi ni mu taaroo xam ne oustaz dem na waaye njabootam yëpp ñëw nañ kon ñi gërëm ñëpp a ah, di gërëm ñi nga xamante ni tey ñëw nañ fi ànd ak ñun ci bis bi donc parce que àdduna moo bindoo noonu boo wootee nit wuy si la nag dangay sant ak gërëm waaye li ci gën a neex bu ñu gisee suñu. xarit sëriñ Alassane Niane démb Ndiambé Gueye da ko wax di diggante Kër Maïs ak sëriñ Alassane Niane kooku yaakaar naa histoire bu yàgg la te xam naa bu jëlee kàddu dana ko dëggal euh, dana dana am lu mu ci sa euh, parce que nettali borom moom moo gën a mën a placé pour mën ko nettali. ah di gërëm ñi nga xamante ni tey euh, teew si nañ fi responsable xalifa Ndiaye muy Thiénaba Horizon nekk France. nekkoon kenn ku doon wut ci mairie Thiénaba envoyé na fi délégation Serigne Talla Gueye moo ko fi représenté kon euh, taala waxal ñu xalifa kontaan nañ ci moom gis nañ ñi nga xamante ni ay notable la ñuy dëkk ci dëkk bi muy Baye Ndiaga Fall Mansour Ndaw ak euh, ñi nga xamante dañ fay yendu ci suba muy euh, Massaw Diallo ak Papa Guèye ak Ibrahima Ibrahima moom ci dëkk bi la dëkk doomu Oustaz Madiara la gis nañ fi suñu tante Ndeye Ngone Dieye moom ci dëkk la dëkk ak ñëpp ñi nga xamante ni tey ay mbokk lañ ay am di jàmm lañ yendu si nañ fi di wax ne programme bi ni mu demee woon ci suba. wàcce nañ fi limub kaamil bu yaatu ñaari daara ñoo fi newoon muy daara bi nga xamante ni oustaz Abdou Khadir Diop moo ko taxawee ak oustaz bi nga ak beneen daara bi nga xamante ni oustaz euh, Cissé moom moo ko indi bu waa kër Baye Thion Cissé wàcce nañ fi limub kaamil bu takk parce que bés bi dañ ni euh, ñoo ko commencé woon waaye fi mu ne nii moomatuñ ko tund Kër Maysa yëpp la ñu wax famille Kër Maysa yëpp su lay gisee lii mën a taxaw ay nit yu nekk si biti yoo xamante ni seen cosaan Kër Maysa la. ñoom ñoo ci jàppoon amoon na nag cérémonie bu ñu defoon ci suba waaye bii mooy cérémonie bi nga xamante ni dañ ko bëggoon def benn waaye ñi nga xamante ni ñooy ŋànk dëkk bi muy waa chef de village waa Kër Baay Bunaam ñëwoon nañ fi sëñ Galas mi nga xamante ni cosaan tey fii la ci Kër Maysa euh, euh, moom tamit yónnee woon na fi ndaw ba am na kaat yu ñu joxe woon waxoon nañ leen sax bu ñu ma woon a patienté ba nga xamante ni euh, avant ñuy def lii tamit dem nañ ci Baye Assane ba am ndigalam parce que Canaba ak Kër Maysa histoire bi euh, wax nañ ko fi tey bu ñu mënee taxaw fii di wax Thiénaba am na ci part de responsabilité bu baax a baax waaye ñoom tamit ay kilifa lañ yoo xamante ni dañ ko jëmmal dañ ko doxee euh, te Baye Madiara aussi oustaz moom tey kenn du ko wax li mu doon ci dëkk bi xam nañ ko ñun ay xale lañ waaye li mu taxawee ci dëkk bi xam nañ ko bu baax a baax kon Baye Madiara euh, waa kër famille oustaz ñoo tënk seen kàddu jox la ko pour nga jotale ko bi ma laajee as mais oustaz as ni ko kan mooy wax ci famille euh, kii oustaz Adama Gueye mun ma oustaz maa sama xol dafa sedd xam ne oustaz ñaari ñi histoire daf leen a lié daf leen a boole kon ñu ngi lay jox kadd dinañ jox kaddu waaye dafa am mbooloo moo xamante ni mu ko ni mu doxee tund Kër Maysa la ñu wax fépp fu doomu Kër may sa nekk ñu am fi benn bureau boo xamante ni Nguura Gueye mi mooy président bi Pape Mor Sylla moo topp si moom di kàddu yi ni ñu bëgg mu mu mu mu tëdd mu gàtt rek. Euh, dañuy jox Nguuda Gueye en tant que président mu tijjil gan ñi wax message am gërë euh, gërëm ñëpp suñu paree ñu jox fi suñu koo xamante ni bés bi da ciy def alalam xale yi ñu bëri xamuñu ko muy commandant Talla Ndiaye yaakaar naa képp ku nekk gendarmerie am na tey ñi mu formé ci gendarmerie kenn xamuñu mu toll ba léegi day formé waa gendarmerie kon ci dëkk bi la dëkk léppam dëkk bi la dama ko woo téléphone ni ko bàyyi Talla bés am na ci dëkk bi de te daan def lépp lu ko wax. lu jëmale dëkk bi daf ciy doxal daf ci kem kàttanam xaalis bëri la ñuy yónnee wax dëgg yàlla bu ko neexoon ah mu ni dama am ngant parce que kilifa la koo xamante tey Sénégal gépp ñëpp ko soxla kon commandant Talla Ndiaye dina ci am kàddu suñu paree ñu jox famille oustaz comme ni ma ko waxee Baye Maajara mooy wax Baye buñ paree nag kilifa gi wax muy Baye ñaana wax message Serigne Thiénaba ñaar nañu ñuy week ba déwén incha allah kon dañuy jox nguda fa teg te ñun nag suñu chef de village dafa neex a nekkal muy Baye Maysa wax dëgg yàlla dañ koy gërëm bu baax a baax moo Baye Mbay Jaw ak Baye Jibi tey ñooy mag dëkk bi wante lépp lu ñu dugg ak ñi nga xamante ni suñu mag lañ ak imam Papa Ba ñoom lañ ko bokkal te lépp lu ñu def rek danañ wax doxal leen. des fois sax bu ñu ñëwee dañ koy jox tey suba dañ koy jox kàddu mu ni moom fépp fu ñu teewati dootu jëlati kàddu te loolu yaakaar naa Baye Maysa yàlla yàlla guddal sa fan. Euh, gis nga ba mu ñëwee fee la toog commandant moo ma xëcc ni ma Baye Maysa da ñëw toog fi moom mu dem toog chaise bële moom mu toog fële kon ki kilifa gu neex a nekkal la bàyyi may yàlla na yàlla guddal sa fan dëkk bi nag dëkku teraanga la yàlla xam na ni du ñu tàgg suñu bopp nag waaye bàyyi may sa mi daf may faral di wax Mame Momar Talla moo waxoon ni kër may sa de ku fi toog teraanga fekk la fi te yaakaar naa teraanga fekk nañu fi xaariñ Gueye chef de village tey wax na ko dëkk bi yaakaar naa tey boo doon xool kër gu fi am sàkket amatul am na mag ñoo xam ni boo leen yeewoon tey neen dem leen seen kër ñaa nga xam te jiitu nañu boo leen bu ñëwaatoon pincum kër Maysa kenn ku nekk pour mu delluwaat këram dina xaw a jafe te bu ñëwoon tam duñ changé toogaay kon yaakaar naa loolu suñ ko mënee am mag ñi ñoo tax ak soxna yi nga xamante ni tey bés bi dañ cey def seen alal def seen doole ba lépp loo xamante ni tey muy xeetu euh, euh, yuy jëm ci ci waa ci ci biir ñoom ñoo ñu ko préparé toggal ñu ko macha allah añi doy na bëri na te loolu aussi tamit yéen kenn kenn du dem euh, dañu ñu remercier daal. te xam ne dëkk bi ñun ñoo koy defar suñu bopp kenn du ko defar nag te loolu laa mus di wax ngeen ñaanal ñu nag ay ndaw lañ ay jeunes lañ ñu gën a am kàttan pour mën a taxawal dëkk bi parce que fu ñu génnee Kër Maysa li ñuy représenté ba keroog la ñuy ñëwaat kon ñu ngi jox kàddu gi nguuda ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñoo ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ Alsaan ñaana mu joxal ñu nuyoo bi mbooleem ñi nga xam ni ñoo fi teew ñuy am mbégte lool wax dëgg yàlla di kontaan ci jataay bi ni mu ni mu demee macha allah am na solo parce que cër bii nga xam ni moom lañ yëkkati jox ma ko ah man de waa Kër may Maysa amuma seen fay ñii kat man maa doon seen maa doon seenub jaam fële laa war a doog ci buntu ba kuy dugg ma fampal ko sey daal waaye ñu jël ma teg ma ci kaw kon loolu doy naa sant yàlla ñu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen xamal ni nag mbir mi ñun maanaam daf ñoo tiim rek waaye lépp coordination bi Ablaye moo ko dox ak xale yi mu àndal ba mu yëg si fii kon Ablaye dañ lay sant bu baax di la gërëm vraiment mission bi matale nga ko dañ lay sant bu baax di la gërëm di sant également sama naatangoo Pape Cissé nga xam ni moom tamit ñoo ànd bokk liggéey bi mu mel ni tey bisub sant la sant gi ñuy sant mooy oustaz aadama mi nga xam ni moo ñu daan defal waxtaan wi yàlla def mu bàyyi ko fi yàlla may ñu euh, ñu am xalaat tuddee ko bis bi ngir fàttaliku ko ngir ñaanal ko ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo fi ñoo fi jóge loolu dama ni jiili sëñ jiili loolu ndam la ah bàyyil na leen fi aw sas nag ñu ngi leen ñaanal ngeen mën koo bay bu baax a baax a baax a baax ba mu set wecc di ñaanal njaboot gi di leen nuyu di leen ñaanal di ñaan yàlla fa leen oustaz aadama féete woon yàlla leen fa yàlla leen fa suñu borom féete. Euh, dañu kontaan lool ba vraiment wax ji mënut a mënut a mënut a bari lool di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni bii vraiment def nañ ci seen ñàq jàppale nañ ci bis bi parce bis bu mel nii. su fekkee amoo ay loxo yu ci jàpp dana xaw a dana xaw dana xaw a sooxe donc ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di gërëm aussi xale yi vraiment seen taxawaay rafet na organisation bi macha allah exceptionnel rafet na di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ñu fekkewaat ko déwén euh, kenn bañ a manqué yàlla defal ñu fànn gudd defal ñu wér-gu-yaram may ñu kattan guñ ko mën a organiser ba bis bi gën a taaru loolu daal laa ne woon dama koy joxe di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ba mën a taxawal euh, euh, liggéeyal Kër Maysa loolu rek moo ñu ñor amul leneen lu ñu ñor ah di gërëm ñi nga xamante ni tey teel nañ fay ñëw muy grand biram mii wax dëgg yàlla ak ñu ngi ko bokkal ñoom jagawaat ak ñëpp ñoo xamante ni ak ñoom Pape Gueye wootee ñu ñëw rek dafa neex dañuy jox commandant rek Talla Ndiaye mu am. Ah, man de mënoon na ma bañ a wax ndax fii ñu wax ñëpp <laughs> bu ñu waxee ah, ci seen ginnaaw laa laa bokk. Euh, Ablaye nag ni mu waxee maanaam nit ki boo ko fonkee booy wax ci moom sax danga koy xam te loolu nag dafa traduir li ne ci mbokk yi yépp dama ko xam man waaw commandant gi euh, mbubb la liggéeyukaay la woon dañoo demoon daaw liggéey yi waaye fii la lépp démarré bu ma nee fii nag muy kër may sa Touba Gueye yëpp fii la démarré xëy loolu jar na léeg-léeg ñu di ko wax nit ñi nit ñi ñi xam ko waaw ba tax na man bu ma duggee fii lii nekk ci man ci mbégte du ma xam nu mu toll ndax dama bari ay références yoo xam ne ma koy gis ay symbole yu bari génn euh, ci man te loolu dama koy laal ngir xale yi parce que ñun lu nu soree soree soree lu nu gëj a gëj a gëj a gëj a gis ci sunu euh, nijaay yi ak ñoom ñëpp ak ñu toll ci sama génération ak ñu tegu ci ñun juste ñun ñëpp xamante nañu te mag ñi ñoo doxaloon loolu soo mosaa jóg taxaw moo diggoy fii ba génn su ma àggee maam diw nuy na la dina def ak waxtu dina la teqale kooku xam nga lu ngeen bokk nga ni ah am naa lu ma ci xam de nga wax mu la benn par benn la ko moo tax fii su ma duggee dara du fi nekk gan ci man parce que fii laa bokk kii wax na ko sànq ci ndey ak ci ci bàyyi kon xale yi lay eh, wax tuuti rek ñoom itam ñu góor góorlu ndax imaam wax na ko oustaz développement technologie bi ni ni mu mel danga dem ba yow yaakaar nga ne xam nga lépp te xamoo dara parce que li nga fixé wu di ci nekk loolu ma nga ca kaw bokkul ak li ci suuf li nga xam ne moom nga wax mooy li ñu war a xam fii kon ñoom war nañu góorgóorlu di dellu siwaat ci xamante bi ah, yëgante bi ci biir mbokk gi ndax ëllëg ñoom itam lii nu mën a def ñun taxaw ak ñoom ni leen kii yéen a bokk lii kii góor a góor ñoom góor a mbay tout ça buñ taxawee seen doom yépp mën nañ ma ni kii nii la kii naa la man ne la kii nii la kii naa la mais bu ngeen moytuwul yéen ñi tëb ci suuf loolu du am te loolu nag bu amul lii nekk fii est-ce que ëllëg dinañ mën a fexe ba mu ñoŋ kon loolu dama koy wax euh, xale yi di terminer rek ci ni ñu tuddee euh, association pour le développement de Kër may Maïssa Ndiaké feeñ na ci biir waxu sëñ Ablaye Kër Maysa Ndiaké dafa rëy eh, fii la ba Kër Ndiak Daaru Mbooj ñëpp ba ca Touba boo ko tuddee noonu pour développement de Kër Maysa ñëpp la ñu engagé te acte de développement nag lii moo ci jiitu xam yow yaay kan xam sa diine xam sa lépp waaye dafa am yeneen acte yoo xam ne aussi dañ ci war a góorgóorlu ñuul ñëpp xale yi mu bañ a nekk rek. loo xam dañ ko wax noonu pour ay eh, cérémonie wala dara mais nan ci teg ay ay jéego di ko def ndax jamono day dox jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom di yëglu di wax fa nga war a waxee am nooy interpeller autorités yi am nooy waajale sa bopp pour ba bu ñëpp taxawee xëy na individuellement nit ku nekk mën na ni man kat mën na maa taxaw laaj li waaye aussi bu dee gox ba dañuy taxaw gox yi war a tase boobaa gox yi bu taxawee ñun tam ñu am mbagg mbagg yoo xam ne bu nu nee ah acte de développement ñu man ñoo wax ak ñun kon loolu rek laa ci doon euh, dolli di gërëm ñëpp di sant ñëpp xam fii ni ma fi mel eh, eh, te mu feeñ ci lépp ci lépp nag laa wax ma teew ma bañ a teew waaw ndax fii du ñu fi def mbaa ñu wax fi loo xam ni yaakaar naa ni def nañ dara parce que li ñu fi war a def lépp lu fi ñu def ñun ñoo ko war a def kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu ci kàddu gi. ndax euh, euh, waruma woon a sori sax sama ponkal mii mi mi ngi ci sama wet moom bu taxawee waruma wax mooy doomu nijaay ji ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni moom jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ah, gis nañ fi suñu mbokk sëriñ Anne ñëw na fi ak ñi nga xamante ni tey ñu bëri gis nañ leen waaye mun ñu tudd ñëpp euh, képp ku ñu tudd rek xamal ni suñu xel ak suñu yéene yëpp mooy tuddoon la waaye jamono moo moo xat te kili ay kilifa boo leen benn temps rek yaa ngi leen lor nit ñi wératuñu it yi dafa bari te ku mel ni chef de village xam naa ak Baye Majara am na ñu bëri ñu leen soxla donc ñii waa kër Baye Maodo lañ dañoo àndoon ñoom bis bi daaw euh, Baye Maodo ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana mu ñëw fii jël engagement bu mu defoon ak kër Maysa sànq laa ko wax contrat boobu nag moom la doom yi bëgg a mottale xam naa ni incha allah euh, beneen yoon ñu gën a yaatal parce que liñ programme woon mooy def ko cérémonie bu benn yoon waaye ñaari cérémonie yi soo ko bëggee jàllale ci télé bi day xaw a metti donc te Thiénaba moom ni mu baaxoo mooy su kilifa teewee donc yi nga xam ne dañoo gën suufee dañuy delloo jox seen kàddu. yéen mbokki Kër Maysa mbokki tund wi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di jiital ci nuyoo bi nag kilifa yi nga xam ni ñoo fi teew taaral jataay bi dañu wax ne asamaan bi ko yàlla yëkkatee rafet na ba noppi waaye kilifa yi fi teew ah nekk nañu biddiw tànt bi de kilifa yaa ngi fi waaye su ma ci tuddee rekk sëriñ Alsaan ñaan Sekk mii toog di ibnul xalifa cheikh Ibrahima Seck doy na sëkk jaratul wéy ci wàll googu mu ngi nii toog kon jataay bi taaru na ba pare ginnaaw loolu mbokk yi man day dama fee amee ay taxawaay lu mat ñaari taxawaay ba ñett waaye bi nga xam ni moo gën a nekk ci kanam moo di jataay bii sunu doom Ablaye ja wax na ko ki ko daan taxawe muy al oustaz Adama Gueye rahmatullahi alayhi moom lañu tudde bis bi muy lu rafet am solo lool ba tax na fameem kenn desul ñépp ñëw nañu nag ay magam a ngi fi ay rakkam ay doomam ay ñi mu fi bàyyi woon ci soxna ñépp ñu ngi fi aki xaritam nag ay àndandoom te loolu nun ñuy taxawe nañ fi boobu taxawaay ba tey mooy ñi mu daan àndal ci jamaatu Ibadu Rahman nga xam ni kii sunu kilifa fii ci tund wi mu ngi nii toog Aboubacar Guissé mu ngi nii toog ak euh, dend ak sëñ bi kon ñëw nañu teew si ci bis bi ci sunu wàll waaye wàll googu itam ñu di leen yëgal ni famille Adama Gueye yal na ko yàlla yërëm yérem way dawlu yi ñëpp. kontaan nañu kontaante goo xam ni mën nañoo wax fi muy dale waaye fa mu yem yàlla rek moo ko xam kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, Abdullah enveloppe bii nag moom ñoo ko joxe woon nee nañu li ci nekk ñu ngi koy xeeb bu ñu sañoon lépp lu fi taxaw ci tànt bi ak lu war ci bis bi rek ñoo koy def waaye loolu ñoo ko joxe beneen bi ci des ngir jeexal mooy dañu fee teewal itam chef de village Abdoulahi Niane comme ni ko euh, Abdoulaye Dia waxe commandant Talla Ndiaye ma le wax ko kër may sa njaake la woon mooy fii nekk ak sunuy dëkkandoo sunuy kilifa ca maam ya laay wax de ñuy waa Canaba gii waaw leer gi wër fii yëpp macha allah cana baa ngi nii benn kilomètre sax matu ko waaye Kër Maysa Njaake gi ki nga xam ni moom moo ko jiite woon muy Baye Matar Gueye dafa nekk fële ca tuubaa jël dëkk bi teg ko ci loxob Abdoulaye ñaan moo tax ñu ñuy wax Abdoulaye Niane chef de village su Kër Maysa Njaake kon muy Kër may sa gi Kër Njaak Daaru Mbóoj Kër Ibra ñaan Touba géey ba ci Paaleen Gëli ci la bokk lépp fii la muy kër may si njàkke gi kon loolu ñu ciy sant yàlla yàllaa ko yaatale noonu rek yaatu gi yépp yaatug njaboot gi la yaatug lislaam la kon mbokk yi kon du nu guddal ndax kilifa yaa ngi teew bu kilifa yi teewee daanaka yëkkati kàddu sax day xaw a jafe waaye kon foofu la ñuy tënk kàddu yi rekk di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla bis bi di gën a jëm kanam rek di gën a dëppoo ak alquran ak sunna comme ni alhamdulilah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li ñuy def nii mi ngi koy suivre en direct Baye Matar Gueye avant ñu koy def nit da ngay kilifa boo nangoo kilifa ci àdduna bi rek yàlla daf lay yombalal say mbir euh, waxtaan nañ ci ak moom lu jiitu juróom-benn weer. lu mu ñuy wax bu leen ci réeroo xaadim bu leen ci réeroo seen baay Abdou Niang waxtaan nañ ci bu baax te liñ koy wax ni image bi mu ngi koy gis parce que am nañ nañu benn groupe boo xamante ni moom moom presque mooy administrateur bi lépp lu ñuy wax depuis boobu léegi mi ngi intervenir nag waaye dañ koy comprendre euh, ja jamono moo ko tënk waaye xolam ak yéeneem mi ngi Kër Maysa te tey xaadim def na fi discours bu am solo kooku dañ koy ñaanal yàlla xaadim ngay yàlla yàlla gudd fa guddal fanam may ko wér parce que bis fii kat moomatuñ ko. waa Kër Maysa ñoo ko commencé waaye moomatuñ ko boo gisee tey commandant mën a ñëw ak ñeneen ñi mais am na ñoo xam te ñëwuñu daf ñu demandé te famille bi yëpp ñoo ko demandé fépp doomu Kër Maysa nekk lendemain Korité dafa xat Korité ba ci suba dafa xat mbokk yi nekk Dakar yi nekk ñeneen ak ñeneen bëggoon nañ cee teew waaye yàlla def buñ cee teew kon xam naa ne bu ñu fi jógee nañ defaat benn waxtaan xool nuñ koy randalee ba nga xamante ni ñëpp ñoo xamante ni doomu Kër Maysa leen mën koo teewee. xam naa ay xalaat lay doon incha allah ah sëñ ñaana nag nee na dañuy jox sëñ saada mu ubbil ko bu ko defee ñu jox sëñ ñaana mu tënk defal ñu ñaan ba déwén incha allah sëñ saada. waaleykum wa rahmatullahi ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam. Ah, di nuyu suñu bàyyi ñaana. di ko jox suñu ziyaara suñu ziyaara xol ak suñu ziyaara jëm. daa baax rek waaye su toogee ñun amuñu kàddu waaye nag ñuy nii ñëpp di teg nuyoo bi ci loxoom nag mu tegal ñu ko ci sunu maam Seexu Canaba Baye Serigne Assane Seck yàlla fi yàgg te wér euh, kàddu yi nag kàddu yi cant rek la ndax euh, su suñu baay ñaana toogee ñun lot nañ ci wax moom daa baax waaye daa jaxasoo woon lool ak Baye Maodo ñu ñu bari luñ ci xam ci diggam ak sama papa ci wóolu gum ko wóolu woon waaye ci doyloo gum doyloo woon Baye Maodo waaye nag ci cofeel ak bëgg kër Seexu Canaba euh, fu mu ñu fekk dañuy dëgëral dëgëral ñu rek moo tax mu ne ubbil ma ma waxtaan waaye su ko jëloo it day rafet te day jekk kon baa ñaana ñu ngi lay ñaanal wér ak gudd fan. ñun bi suñu bàyyi génnee àdduna yow bokk ci ñu gën a dalal seen xel waaye bokk ci ñuy gën a ñemeloo kon yàlla nga yàgg ci seen kanam ah yi nag kàddu cant la rek ak ngërëm ñu koy teg ci suñu loxol Baye Mbassa Diaw waaw kër may sa gépp ñoo seddoo Baye Maodo waaye koo gis kër goo gis am na koo xam moo fi sa bunt waaye kër may sa seen bunt ci sama papa Baye Mbassa ci seen jëflante ci seenu ànd gu rafet ba tax ñëpp xam ne lii laa yell ba ñu bari jox Baye Modou loxo jox ko nopp ba tey muy rafet ba tey kon yàlla na ànd bi yàgg yàlla na kóllëre gi yàgg jataay bi taaru na lool jataay bu ëpp lii amul kon ni ko oustaz waxee ñun amuñu lu dul diine te diine rek lañ am te diine ji képp kuy jullit rek ñoo ko bokk kenn ku ne am loo séddoo rek nga téye ko di ko doxal te suñ dajee ci ëtt bi lépp lenn lay doon te loolu rek la li ci am solo mooy mu rafet rek te taaru rek tey gën a taaru loolu rek moo ci am solo waaye benn jëmuwaay la ndax lu baax moom lu baax rek la tudd sa du weesu mbaax kon Baye Bassa kontaan nañ ñu ngi teg nuyoo bi sa loxo duñu tudd duñ lim nag waaye suñ ko tegee sa loxo nga jàllal ñu ko ci ñëpp ñun xam nañ yéen waa Kër Maysa fi ngeen teg Baye Maodo xam nañ seen jëflante ak moom ñun nag benn jubluwaay rek lañ am mooy lépp lu Baye Mor daan taxaw waaye lépp ku Baye Mor képp ku Baye Mor daan jëflanteel ñun duñ ci wàññi dara dañ koy yokk waaye duñ ko wàññi. te nag nam ko daan defee rek def dañ koy def ngir yàlla waaye dañ koy def ngir diine waaye dañ koy def ngir islam bépp salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ànd nag suñu alsaan moom la sama papa tuddee bàyyi alsaan ñaan mii. kon loolu firnde ci firnde li li may wax ci diggam ak sama waajur moom mii la ko bàyyi ñaan mii la tuddee suñu alsaan mii. maa ngi ànd si Ibrahima Seck mu tudd ko Pape Ibrahima bu Baye alfa Mamadou. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñëpp xam nañ ni Kër Maïssé tey ku fi ñëw indi fi oto bu ñimewul suuf dañuy lay puus wala dañ fi yàgg lool. waaw dem na ci ba ca ministre de l'intérieur loo xamante ni fekkee fekkee wuñ ko waaye nettali na ma ko ak ña ko fekke woon benn doléance la am muy diggante Kër Maïssé ak Thiénaba mu tali ko loolu rek mooy doléance am. diggante Kër Maysa ak Canaba am ay làmp courant bi moom ñëw na jóge na Canaba Seck ba ñëw na ba Kër Maysa kon tali bi moo des te xam naa lépp lu mu ca man dana ko ca def tey rek Pape Mor Sile mi ngi may wax ah sëriñ Canaba ñëwee nañ ko wax diggante Kër Maysa ak Canaba tali bi man ko fàttewu ko seen xel mi ngi si kon sëñ bi ñëw nga sa dëkk ñëw nga say xarit ñëw nga say soppe sa loo ci wax yaa ma gën a xam diggante bi dañuy jox kàddu gi rek. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk mbokki jullit yi fi nekk yëpp ñu ngi ziyaara ñëpp di ndokkeel ñépp di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak di wax yàlla yàlla boole baal ci mbaaxam ci dara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi balu ak ñépp ci weeru koor wi nu génn nga xëy bokk na ci li jullit yi di def bu ñu xëyee ko dajal ni ko baal ma ak mu ne la baal naa la nga ni ko yàlla na yàlla boole baal kon yàlla na yàlla defal loolu ci barke jotaay bi jotal ñëpp nuyoo Serigne Thiana bu bàyyi Serigne Assane Seck ak mbooleem njabootu maam Ahmad Ndaak yëpp nag la ko la ci imaamu ratib ak sëñ Jibril ñu ngi nuyu waa kër Maysa yëpp nuyoo boobu nag ñu ngi koy wàcce ci sëñ Maysa Diop mi nga xay mooy chef de village dëkk bi muy wàcceel na ko ci sëñ Babacar ak Baye Jibi ak sëñ Pape Ba ak ñi ko bokkal ñëpp di beral cant ak nooy itam sëñ Basa Joon mi nga xam ne nii wëlale woon la ci sunu mag sëñ Maodo Babacar doon xaritam bari naa trop lu sëñ Maodo taxaw ci sama buntu kër ni ma ci masal jóge wala nan fa ànd wëlale mu di ko sàmm yaakaar naa am na fi turandoo sëñ Maodo doon sunu mag di sunu mag ju baax nu bokk baay ba pare muy sama xarit ma ñëw fekk fi njaboot gi nga xam ne ñëpp mën na leen mën na leen tudde ñi sa mag leen tudde ñi mën na leen tudde barkala te doom boo ko fekkee ci barab ak rakk yónni ko boo lëggee boo ko fekk bu fa ñëwul mën na la faa wut di nuyu sëñ maa jara ñaan bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ni yëkkati ne ko fi di nuyu sëñ Gouda Gueye bu baax itam di ko jaajëfal bu baax di ko yóbbante nuyoo ci sunu wala Mor Diop Decroix présenté nañ ko ay yoon yoon di nuyu mbooloo mi fi fekk yëpp nag sëñ maa jara ak seen kilifa gi di jiital Ibadu Rahman ñu ngi koy nuyu lu bari di jaajëfal bu baax itam sëñ Alsaan Jaw ak sëñ Jibi mi nga xëy ay oto yor ñu dëkk ak ñun Canaba di yendoo ñun di fanaan ak ñun di nuyu soxna yëpp itam nag di nuyu waa Canaba itam ku mel ni sëñ Talla Gueye ak sëñ Pap ñu ngi leen di nuyu bu baax suñuy doom lañu te suñ fi teewul woon tam ñun suñ fi teewee doy na seen teewaay doy na suñu di nuyu sëñ Papa Gueye ak sañ Massaw jàll di jaajëfal waa Kër Maysa yëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw di sant it sunu doom ju nu fekk muy waxtaan ci lislaam tabarkaal alxuraan li muy neex neex neex nga fekk ku koy wax xam ko sax moo dàq ndax da ngay nafaraat suñ jotaay nafar nañ fi lu bari dégg gi day neex ni mu koy commentaire neex kon jaajëfal nañ ko bu baax di jaajëfal waa Kër Maysa bu baax a baax itam den wax ne sëriñ bi kontaan na jaajëfal na leen ñaanal na leen te ndax ñun Kër Maysa dañ judd rek fekk ñu naa Kër Maysa Njaag mu jiitu na sunu judd te mag ñi wax lañ ni ni maam Ahmad Ndaa bi muy ñëw fii fi la fekk Kër Maysa kon man Kër Maysa moom ak tuuti Canaba kon boo xaymaa diggante Kër Maysa ak Canaba lee mu dem ñaari siècle ñaari siècle nag ci dëkkandoo ci ak mbokk ci ak xarit muy gën a rafet la leen boole kenn fàttewu ko su ngeen ko fàtte woon jataay bi du rafete nii ñun suñu xàmmeeku mi ngi dalee ci bàyyi parce que bàyyi ndongo jaw ñoom ak baab laay ak bàyyi Cheikh jaw ñoom bàyyi sàkk ci ñooñu la dalee daanaka te am na mag ñu leen jiitu kon ma kër may sa mag na loolu yàgg mag ñoo ñu fi xamoon yëpp jóge nañ fi tey ngeen des fi dese jataay bi dëkkin wi di rafet dëkkandoo gi di rafet ba tey cana ba dëkk na ba ak si kër maysa sa tax taxaloon na waaye fekk na taqaloo gi ci espace tam taqaloo gi ci jikko yu rafet jiitu na ko ba amuñu lu ñuy tiit ci yéen amuñ leen lu ngeen di tiitin ba loolu tax na at yii ñu yëpp ca bàyyi ma seenu xaar jaar ci bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane ba ci bàyyi Assane mi ak ba Abdourahim kenn ku ne soññee nga ci dossier gàmm gi turu Kër Maysa nga fa pour rek yoon wu jógee Thiénaba ñëw ba Kër Maysa ba wër dëkk bi loolu document la boo xam ne dama wax sëñ Ablaye mii ni ko dama bëgg sax bu ñuy defati CLD gàmm yow nga ñëw teewal Kër Maysa ñu ànd ci ba ñu xam ne yaa représenté Kër Maysa ci biir Thiénaba ndax sëñ Maysa mais moo ma ne woon delluwaat sëñ Ablaye ak sëñ Alsaan mi loolu lépp nag mbokk gu rafet ak waral ak dëkkandoo gu rafet ak bokk diine tabarkàlla sunu nopp jógu fi nopp sëñ Thiénaba jógu fi waaye wallaahi mosuñu fee dégg benn njombuti fu diine sëñ maa Kër Maysa suñu fee dégg benn ñoom mu defi diine waaw te bu du woon diine itam sëñ Maajara mii du wàll si man duma wàll keneen du wàll si waaye jataay bi nag jataay boo ko gën a taaru amul ndax itam li nu génn muy saxru ramadaanal mubaarak ala si unsila fi alquraanu nga xam ne nii kado bi ci yàlla ji dig bi ci gën a rëy muy laxalakum te taxoon def leen ko am ragal yàlla ñu xuus weeru rajab ba mu jeex sunu borom ni rajab sama weer la ñu xuus saxbaan yonent bi ni baraxlu maa ko moom ñu ñëw ci safar ramadaan mu ni jullit yee ko moom yàlla digg ci kaddu bi gën a rëy ci ab jullit nag mooy am ragal yàlla nga xam ni caabi passe partout la ku am rek am nga caabi passe ci lépp diine nit ki tënk ko daa jafe tënk ay cëram dafa jafe mu àndul ni weeru koor ngir tënk nu sunuy bët tënk sunuy làmmiñ tënk sunuy nopp tënk sunu bànneexu bakkan ba yu tënk-tënk yooyu moo ni waral ñu mën a am li sunu doom ji doon wax rek nekk jàmm bu sell ndax wa maa umiru illaa liya'budullaaha muxlisiina lahu diina yàlla ne digaluma leen lu dul rek ngeen fexe ba nekk ñu nit ñu sell sell googu nag su amul ragal yàlla du mën a placer fi mu toog moo tax ñuy tàggat cër yi ak xol bi ak xel mi ak biir bi ci weeru koor bi ndax ragal yàlla mën a am place bu mu toog ragal yàlla nag heure bu ko ab jullit di xeñtu di xeñtu di xeñtu ba sunu borom placer ko appareil boobu ci biiram am na ay frein ci lépp loo xam ne nii désordre la ci wàllu islam ndax alquran wax na ni. inna la si ne isaa yi taxaw isaa masahum taifa mina seytaan tasakkaroo fa isaahum mubsiroona waxi waa noom yi muy doona fil xëy suma laa yox siroona nee na ragal yàlla appareil boobu heure bu ñu ko roofee nit ki nee na am na ay frein ci lépp loo xëy neexul yàlla lu bëtam jëm rek da ci am frein lu tànkam jëm dootu dox lu neex lu neexul yàlla dootu ko wax dootu ko jëf loolu nag moo koy yóbbu ci ala inna awliyaa yi la mu muttaqoon xaritoo yàlla nag daal di judd ndax ku ragal yàlla xaritoo yàlla ku ragal yàlla xaritoo yonent bi ku ragal yàlla xaritoo asamaan ku ragal yàlla xaritoo suuf ku ragal yàlla xaritoo ñu baax ñi kon su ngeen xuusee weer yu ba génn ni nan sant yàlla ci weeru koor yu nu may bokk gi retourante waat kër may sa njàkk ak démb kenn kër fa mu dëkk ñu daje saafonte balonte ak bokk teg benn ustaas ci sunu kanam mu nafaral nu sunu diine nu xool ba xam examen sunu bopp ba xam ñun est-ce que weeru kor wi ñu doon def ni ko diine waxe defe nañ ko noonu wala déet loolu lu ko gën a rëy amul. am na ñu koy def te dañuy wut nag yu bari ak boisson bari rek xawaare dem wala ñu woo ñuy way way àdduna rek ba mu jeex duñ fa jëlee dara ci yàlla waaye seen jotaay bi wallaahi yàlla dong la kon ku ñu ci woo ñun occasion boobu ñun gërëm na leen ci bu baax a baax a baax a baax. ndax wóor nañ màgg nañ fi yu rëy rëy ak tuyaaba yu rëy waaye daal ngeen xam daal sëñ Thiénaba bàyyi na leen xel jàpp na ni Kër Maysa gi moo ko moom te it moo ko moom. tey sëñ Madiar lépp lu yëngu fii ci Kër Maysa sëñ Maysa Jóob kilifa yi dañ mën a waxal Ablaay mi ci Thiénaba noo koy bokk bu ñuy waaj gàmm neen ñu ngi waaj gàmm bu ñuy set setal neen ñu ngi set setal lu ñuy def noo koy bokk te lu mu doon moonu ca man kon sëriñ bi nee na bàyyi na leen xel ni. lépp lu am calama bëgg na mu am kër Maysa insa rabbil ci tëli ci wàllu yoon courant bu ko ndox mu ko ak lépp kon ñu ngi leen di ñaanal baax yàlla dolli fi barke dolli fi sutura dolli fi taranga parce que Ablaye nee na mag ñi sancoon kër Maysa suñ fi ñëwoon ñu bari duñu xàmmi seen kër waaye suñ fi ñëwoon tam duñu rus ndax bàyyiwu leen diine ji mu booy bàyyiwu leen dëkk bi mu booy bàyyiwu leen bokk bi mu booy bàyyiwu leen xal bi mu booy kon jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax a baax a baax kenn ku dëkk Thiénaba su ma ñëwul woon sama doom yi ñëw rek doy na sëkk ndax ñi itam seen papa tam xàndal la woon boo xëy ci waar wi la jeex tàkk sëñ Maodo Babacar di jàmbaar féete woo kër may sa bëgg ko lool mbase mi nekk fi élekaam eh, tubaarkàlla kon su ma leen fi fekkee fekk naa fi sama bopp waaye daaw dama rëcc ren nag sëñ Ablaye woo ma ni ko eh moom su ma dee raawit dinaa ñëw waaye kër may sa moom mënumaa ba dem mukk di ko laaj yërëm sëñ may sa jom mi ñu ngi koy gërëm wala sunu waajur Baye Abdourahim Lo ñu xam ko lool nag mu am ci honnêteté lool lool am ci taxawaay bu rafet maa ngi seen sëñ ko di ngay fële ca ginnaaw ak rakkam di sunu wala di sunu xale lool nag ci biir ak ci biti kon daal am nañ mbégte moo xam ne suñu waxul woon sax xam nga ngeen am nañ mbégte waaye ñi ma wunoo ñëw bu si te buñ demee néewuñu sëriñ bi demal nañ la kër may sa santal leen gërëmal leen waaye daal ñu ngi daw ak dëkkandoo ak seen diggante ak yéen bu baax a baax baax a baax waaye dëkkandoo ngeen yéen xañ ku ngeen dëkkal xañ na kat yéen mu amee leen àq waaye yéen du ngeen ameel àq kenn ndax dëkkin wu rafet ak joxe cër ak maslaha ak mën a rafetal ñu ngi leen di jaajëfal baax wax naa ni mag ñi dëkk bu ñu sanc bala ñoo sanc dëkk dañ koy ñaan yàlla mag moo ci gis mu sañ ci dëkk rek nitu yàlla bu mu xam listixaarloo na ko xoolloo ko ba xam fii mënees na fee toogal yàlla su fa toogee yàlla la fay toogal suy dem tam yàlla la koy dénk moo tax dëkk boo ci ne ci dëkk mag ñi bay boo nekk fa yàlla rek soo fa nekkul yàlla ak sella la la fay génne ëllëg doo ko xam ndax ko moom moom dénk na ko koo xam ne nii dénk na ko koo xam ni laa taaxu soo sunnatun wala nawmun lahu te walaa yow di suma wal alil waaw dénk la ko koo xam ne nii moom la fa toogal ba tëgg ba tëdd ci buntu jumaa te mag ñi soriwuñu mag mu ci tëdd ci buntu jumaa ji itam Serigne Cheikh Tidiane si nee na mag moo xëy boo àddoo tànkal ko boo defee ni daa dem am na lu bari loo dese kon ñu góorgóor lu baax ci dëkk mag ñi bàyyi leen xel bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala yàlla fu muy nangoo ñu def astafurlah ñetti yoon jàng fatiha jàng ayatul kursi yu jàng laxat jaakum ku ko man jàng xul wallaahu jàng falaxri naa si salaatul fatiha nu ñaan jataay bi yàlla bu fi kenn jógaale bàkkaar ku fi andi wéral di yàlla na ko yàlla saafara yàlla doon jataayu fajug aajo boo xam ku fi toog fajug aajo topp la faw yàlla na ko téyewaat déwén feebar yi xew yi xew yi xew yàlla suñu borom aar ci dara jëntu sal sal ci mbaaxam wasbi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaqa laa hawla wa laa astagfirullah astagfirullah astagfirullah allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm wasi'a kullu shay'in samaawaati wal arda wa laa yahuuduhu hifdhuhumaa wa laa yahuuduhu hifdhuhumaa laa ikraaha fid diin laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum azizun 'aleykum maa anittum alaykum bil mu'miniina ra'uufun rahiim fa in tawallaw fasbiru qul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad عليهم خلاص الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات خلاص رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس سلام خالد من رب الرحيم سلام على نوح سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين سلام عليكم تتم سلام هي حتى مر وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم والخاتم هذا الحق بالحق ولا دلال صلاتكم سقم على آله حق دليل مقدار صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم